ah maa ngi lay dégg de xaw ma daa Abdou Mbow lay déggam de. <laughs> waa ndey Ami na nga def maa ngi dégg def naa ko. maa ngi lay ah Abdou eh, def naa ko waaw thank you so much. ok all right. salaamaaleykum. waaleykum asalaam. jërë ngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo ITFA Islamic Tijaniya Foundation of America rajo ITFA doon rajo boo tey leeral Why? Mahmoud dégguñu la de salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi jégalu kii alors euh, ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu all the auditeurs ak ñi nga taalibe yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu. di jiital si nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Sidi Ahmed Sy mi nga xam ne mooy le père fondateur de fa ak soxnaam su tedd si soxna ma sek si Sy jàmbaaru islam rawatina fii si fa buñ leen nuyoo rek nuyu nañu ñëpp. Ah, tey nag ñu am mbégte di maa ngi woote Dallas Texas Daaru Habib studio ah, ànd ak sumay naataango sumay mbokki taalibe eh, El Hadj Pam Ndiaye Guèye the guest speaker and ah, sax eh, Pape Kebe eh, le président des présidents monsieur Tidiane Seck ba Rhode Island donc euh, xam naa li may def rek sans plus tarder damay euh, jox euh, Euh, Pape mu ñëw defal ñu programme mu ITFA bi euh, si ñu xuus si bi mu ñu introduire ko incha allah rabbi bisimilah kon euh, ki nga go ahead and ñu programme ITFA bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum asalaam wa wa ah, barakaatu. Haj Mamour maa ngi day nuyu di la ziar dellu di nuyu di euh, suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed si di nuyu it suñu yaay yaayu daara soxna ma jigéen di nuyu it ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fi teew ah programme yi ITFA bi nag ah, li ñuy di sëñ bi di def mooy am na jàngale ba muy def ah, samedi diggante midi ba deux heures et demi boobu mu ngi koy def ñi nga xamante ne xale yi nga xamante ne maanaam seen ah, anglais dafa dëgër donc mu leen di ko di ko jox euh, dimanche bi nga xamante ne seen jàng tamit euh, hmm, euh, xawu sori mais boobu ci ci olof ci olof la koy defee diggante midi ba deux heures de demi beneen bi mu ngi koy def mardi ci mardi ci guddi diggante huit heures ba dix heures mais boobu ñi nga xamante ne nag seen jàng sori na sori na loolu day ma ciy boole sax di ci gërëm te di ci ziar ziare tamit euh, euh, suñu yaay daara yi nga xamante ne dañ nekk ñoom ñoo fa ñi fa ëpp nag ñi fa nekk ñoom ñoom la beneen bi mooy comme tey euh, jeudi mu mel ni ñu nga xamante ne lépp li nga xamante ne dafa jëm ci social wala li nga xamante ne dafa dëppook jamono ñu koy ñu koy dund dañ ci dañ koy ñëw toogee fii waxtaanee ko invité ki nga xamante ne xëy na xam-xamam amna ci pàcc mu mën ñu xelal wala mën mën ñu jox loo xamante ne information yoo xamante ne daf ñu njëriñ la suñu bopp bu dee àjjuma nag comme àjjuma euh, euh, euh, su jullit la ah xanaa boo demee julli àjjuma ba pare bu guddee rek nga ñëw toog rek nga ñëw toog def sa xadara ñu ñu invité oustaz yoo xamante ne ñu nga am ñu ngi nekk Sénégal am ñoo xamante ne ñu ngi nekk fii Euh, am ci xam am xam-xam loolu ci lislaam euh, ñu boola def xadara euh, def xadara bi loolu moo nekk programme bi nga xamante ne moom la moom la il faut di def mais am na tamit benn réunion bu ñuy def maanaam li nga xamante ne loolu ci mercredi la jëm lépp li nga xamante ne li jëm ci ITFA li ñuy organiser li ñuy li ñuy diisante di sottante xalaat ñu tous les mercredis de 8h à 10h, Inch'Allah, rabbi benen bi nak moy amna ah, ñi nga ne yek nañ ko wala convention bi ñu bëgg décembre ñu décembre le 3 ak le samedi 10, bi rabbi bëgg def euh, meeting meeting kick off képp nga participer mu nga mën nga ñëw participer nga nga ñëw déglu wala képp ki nga xamante ni tamit bëgg nga jàpp ci li nga xamante ne di maanaam ci luy waajal convention bi la bu la boo ñëwee ah, boo participer tamit mën nga bu fekkee ne da nga da ngay bëgg ah, foo xamante ne da nga koy mën a joindre moo xam ci wàllu ah, food and beverage wala moo xam ci wàllu ah bu dee da nga bëgg jàpp ci côté transport wala bu dee da nga bëgg a jàpp ci côté

Euh, le Saturday bii di ñëw euh, July 10th 6 p.m. Eastern Time New York Time incha allahu rabi dinañ ci ànd ak suñu wasila suñu sëriñ si jotaay boobu loonu ñu si woo ñëpp na mbokki taalibe yi ngeen share information bi te xam ne wax dëgg yàlla jotaay boobu dina am solo lool lañ fay waxtaanee mooy defra mooy wane suñu mbéb suñu mbébét euh, ànd liggéey li nga xamante ni mission bi si la bokk te bu ñu ñu ko daan def yàlla def na euh, covid bi nekkoon fi mais ak xel yu dal ak euh, li nga xamante jéego yoo xam ne dox nañ ko te based on what we seen incha allahu rabbi daje boobu dina am solo lool donc euh, loolu laa si bëggoon a rappeler ak li nga xamante ni aussi mooy classe yi nga xamante ni ñu ngi koy joxe defe naa mentionné nga ko sax bu Tuesday night bi mooy most advanced level bi 8 pm te ñu si woo mbokki bi yëpp foofu dañ fay def tajwid fa jàng alxuraan ak tafsirul xuraan sëriñ bi si boppam moo koy jàngale la même chose on Saturday dinañ jàngal xale yi nga xam ne ñoom fii la ñu nekk si dëkk bi euh, tout tànk yooyu ñu ngi leen di sëriñ bi moo ni jàngal si boppam si kàllaama English euh, euh, aussi am ñu beneen classe boo xamante Sunday la muy mid advanced level bi boo xamante Sunday la at 1 pm Eastern time Euh, si lañ koy joxe donc euh, te yooyu ku si bëgg a jëriñu rek mun nga jokkoo demee ni soxna Ndeye Amy Sarr mu ngi si panel bi ñoom El Hadj Pam Ndiaye ñoom euh, Cheikh Tidiane Seck maam Adama Guèye soxna Jeewoo soxna maam Kumba ñooñ ñëpp ku ngeen si woo rek dinañ leen mën a laaj biir ba nga xamante ne leen wax nan ngeen di def ba dugg si programme yooyu. njàngale moomu nag comme ni nga ko waxee rek euh, dem na ba nga xamante ni mun naa wax ne c'est université international right now because am na ñoo xam ne ñu ngi taalibe yoo xam ne ñu ngi Sénégal di si bokk Europe noonu donc euh, ñun ñi nga xam ne nag ñoo nekk fii ci États-Unis ñu ngi si wo ñëpp di si woo fépp waay nekk rek nga ñëw join ñu si classe yooyu nga xamante ni wax dëgg yàlla daara universelle la boo xamante ñun ñëpp mun nañ ci take advantage donc sans plus tarder damay def rek euh, dem euh, si président de président monsieur Cheikh tijan Seck su ko defee mu indi ñu suñu gan gu ñu am tey euh, comme ça ñu dugg si waxtaan wi salaamaaleykum sëñ Cheikh. waaw ah, waaleykum salaam wa rahmatullah Aji ñu ngi lay nuyu di la ziare di nuyu sëñ Pape di ko ziare bu baax di nuyu mbooloom ñi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñun ci. Eh, radio islamic tijaniya foundation of america muy ITFA eh, di jiital si nuyoo bi nag eh, sëñ Sidi Ahmed si sunu kilifa sunu guide sunu wasila ak soxnaam soxna ma jigéen di nuyu mboolam ñi nga xam ne daal ñoo ñuy topp jamono ju nekk ci sunu waxtaan yi nga xam ne ñoo ngi koy indi ci biir semaine bu nekk bu ko defee nag tey jii ñu dellusiwaat si alxames bi Euh, ànd fi ak euh, sunu mbokk taalube sunu mbokk pas-pas sunu rak sunu xarit euh, di ki nga xam ni it fa wax dëgg yàlla miin nañ ko ci ay activité am ci jàppaleem ci taxawaayam ci liggéey bi nga xam ne ñoogi ngi ñun ñëpp di ko bokk def ku ci nekk tamit di ci def sa parti bi nga xam ne yaa ngi féete ak moom tey jii nag mu ñëw ànd fas na ànd ak ñun. ñëw nañ ci waxtaanu euh, social yi nga xam ni moom la ñuy moom la ñuy def euh, aj euh, alxames bu nekk kooku nag mooy sëñ Pape Ndiaye Guèye moom nag mi ngi ci mi ngi ba Darul Habibi bi nekk Kentucky donc tey jii ñu koy dalal ci këram ci place am ci fi nga xam ni daal moom la féete. mu nekk ki nga xam ne nag am na expertise macha allah ci domaine bi nga xam ni moom la ñu bëgg indil tey jii muy domaine u euh, mortgage financing islamic financing mortgage euh, mu am ay xam-xam yu yaatu tamit ci euh, domaine finance in general ak ni nga xam ne daal tey jii moom la ñu àndal tey jii bu soobee yàlla muy fas ñu indil. waxtaan ñu teewlu ko parce que xam naa ni fi mu nekk ni ñun ñu si nekk ñëpp ñi nga xam ni euh, ñoo ngi bëgg am kër ñi nga xam ni am nañu kër ba pare ñi nga xam ni ñoo ngi bëgg def ay refinancing euh, ci méthode yi nga xam ni daan nañ conventionnel yi nga xam ni xam nañ ko euh, di ko def si jamono yu nekk tey jii nag mu ñëw indil ñu model bi nga xam ni macha allahu ñun ñëpp comme di ñuy woote nekk ay jullit mu nekk domaine bi nga xam ni tey jii moom fas yéene na ci ñëw Euh, indi ñu si ay waxtaan indi ñu si ay leeral wax ñu si ay euh, yi nga xam ne soobu yàlla buñ si euh, jubloo rek mën na am daa ñu mën a changer sunu façon thinking ci question finance ak ci question wut kër ak ci question refinancing donc moom dana ci dugg nag ci domaine yooyu yëpp domaine islam bi surtout foofu la ñuy indil ci affaire riba bi ki kii bi nu mu taxawee ak yooyu yëpp xam naa yëpp dana ci indi dana ci indi ay leeral Euh, ñun tim ñu am ay tont ay questions yi nga xam ne daañu ànd ak moom di ko ko laaj euh, bu ko defee rek yooyu yëpp bu defee exposé ba pare euh, bu soobee yàlla ñun tamit ñu ànd ñun ñëpp ñu nga xam ne ñoo ngi ci panel bi ànd ak moom teewlu ko laaj ko suñu ay laaj mu indi ci ay leeral incha allahu rabbi salaamaaleykum sëñ Pape ñu ngi lay nuyu di la ziare di la dalal si sa ëtt incha allah salaamaaleykum wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آه، خلينا رك دي كونتان تي دال دي ما دال تي تي تي راجي بي خام سي راجي بوكلا كوم نيكو نيب واخا رك مي لي دي ام سالو خام ما شاء الله نيب تي جاب تي لي دي كيب كو خام ياغي بوك نيبو تي فات تي نيتالو سوني سيرين سوني وسيلا سيدي احمد سي لي خام نيكو حاج مامور واخا تي فيزيونير ngeen indil ñu plateau bu mel nii indil ñu aussi euh, euh, euh, outils yu mel ni vraiment ñu ko ci ñu ko ci sant mais di ko ci félicité aussi parce que dafa fekk ni jamono bu nekk rek war nga mun indi lu méngoo ak jamono te l'islam dafa war saa su nekk war di méngoo ak jamono donc tey it fa wane na wane na wane wane na tey loolu ci ci plateau yu mel nii nga xam ñu ngi ciy liggéey di di yasa suñu ziar suñu seen comme ni ko waxee rek di di nuyu ok soxna maa comme ni ko waxee nga xam ne mooy daara ji ànd jigéen yu baax yi nga xam ne nekk ci fa donc ni ko Cheikh waxee tey rek macha allah ñu ngi bëggoon ñëw dugg ci benn topic boo xam ne ñu koy Islamic financing in mortgage so I wanted to start with uh, uh, exposé bi déjà for about a few minutes wax leen the type of financing yi nga xam ne moo am and what makes the difference between the regular mortgage and Islamic financing donc uh, pour loolu aussi eh, dina baax peut-être eh, ñu bëri xam nañ ma ci ITFA eh, ci ci wàllu liggéey bi aussi background little background about myself it it will help to uh, kind of uh, one a little bit li tax ma mën the waxtaan ci ci wàllu islamic financing so as many of you know li ëpp sama ci sama sama curriculum sama jàng fi laa ko defee États-Unis après le bac Sénégal nekkoon naa institute for two years Eh, après ma fi ba ma ñëwee fii nag eh, le 15 juin laa staroon eh, commencé university school staré at University of Kentucky JCC fa laa amee sama associate degree in electrical engineering and then I move up to the university Sullivan University fa laa defee sama bachelor in computer science in information technology and then fa laa amee sama master in business administration concentration in finance so it's a little bit of my background I work a little bit also in corporate America in terms of the as a project manager. So definitely role for a few years. My Summer Passion has always been business. So I always been in, in, in business. So time the next year, I'm involved in, in, in many different businesses, uh, owning my own business for, for a while. And um, kind of stumbled to financing. So Islamic financing, because I've been doing taxes for about almost 20 years. So from a background to you, moving equity finance business management eh, loolu yëpp but ma dugg ci real estate in about five years ago eh, because ba ehm, ngay you know, project manager sometimes it's not liggéey it wasn't really passionate for me so I stumbled to to ci real estate donc eh, start real estate about five five six years ago and then don't just two research like some of the company company to is guidance residential and they were uh, specializing in, uh, in, in, in Islamic financing. So my approach then, and uh, they offered me a job to, to become the area manager for, for guidance in, in the Midwest, Kentucky. And then uh, I worked with them for about mm, three years. After I'm uh, under a Belgian company with the Devon Bank, so still doing uh, some financing. So a little bit of background. I do want to elaborate too much on that mais day topic why why he's talking about this topic so this is not like loo xam da off the cuff but something that xam not only jàng but I will I'll be practicing day in and day out so Islamic financing in mortgage so balaa maa euh, Islamic financing in mortgage Islamic financing in general uh, dafa nekk loo xam ni ñu bëri ñu xamu ñu bëri ñu xamuñu ko man to be honest before I get into it I didn't know anything about it parce que du suñu especially Sénégal ak Gambia it's not loo xam ni dañ koy dañ koy dañ koy put for uh, we just thinking that going with the bank most of the time the bank benn lañu so what's the difference between Islamic financing and regular financing the main difference between the two buñ ko waxee dëgg-dëgg mooy risk right risk mu dafa xaw a ak risk mais ci ci baatu arab bi si mooy mooy tamit boo xoolee li nga xam ni spéculation da ci nekk donc islamic finance bi mu bëgg a génn ci finance mooy spéculation spéculation mooy lan mooy nit xalaat ni daal war na nañu mun a jënd xaalis kaw xaalis war nañu mun ay transaction yoo xam ne is risky moo tax that's the base principle of islamic financing mooy nga éliminer risk the second principle mooy nga fexe ba euh, ñaari part port yi nga xam ne ñoo ñoo seq mbir mi duñ ci gaañ kenn du ci loolu donc lislaam euh, li mu bëgg mooy fexe balaa ay nit bu jëflante jëflante bi kenn du ci gaañu ku si nekk mu mën ci gis sa bopp so how does it apply to to to regular financing especially when it mortgage parce que boo xoolee salary financing am na ci mortgage am na ci business am na ci ci insurance am na ci ay type of islamic finance yoo xam ni moom mooy registré en wax la dëgg-dëgg xaw ñun ay nit bu ñu jëf jëflante ci wàllu xaalis nan la ñuy fexe ba mën a jëflante ci wàllu boobu the first question you're going uh, to ask mooy bu ñu jëlee bu ñu jógee ci wàllu mortgage right dinaa élaborer ci kanam tuuti yan type of mortgage more am um, but li nga xam mortgage bi nga xam ne moom la ñu xam buñ ko buñ explain when ko explain ñu xam différence entre mortgage boobu ak islamic mortgage so type of mortgage you nga more ne am more la come to ci dëkk bi fii mooy li like conventional uh, FHA VA loans adjustable mortgage, interest only loan You need a mortgage la yoo xam ne yow mi bëgg when you get together with a loan officer both waxtaan ak moom dalaan ah waaye fu mu ne nii de mën naa la finance nga jënd kër type of mortgage yi moo so what's the main difference between mortgage yooyu and and and and Islamic financing so mortgage in general when it comes down to to buying a house it's that bank bi will be def mooy dalay lebal xaalis right the house is cost two hundred thousand dollars bank level two hundred thousand dollars and then they charge you interest on that $200,000, right? And then you go and buy the house. Typically, normally, your body maker kër gi sax kër googu yow bank euh, banque the da ko jël rek da ko come guarantee. jël euh, the relationship bi nga am degg bank ak it's not with the house it's with the euh, with the money So bank bank lends you two hundred thousand dollars charge you three percent on on that money and then you amortize it over thirty years or fifty years mooy ngay fay ci xaalis boobu donc islamic finance li may wax dafa uh, money has no intrinsic value like hundred dollars or hundred thousand dollars or two hundred thousand dollars bu mu ci valeur boobu la valeur am mënul weesu loolu tey sëñ Cheikh tey bu ñu seef kon tey man ak yow ma lebal la dollars ba may fay ci lislaam mënoo ma fay lu ëpp mille dollars parce que valeur mille dollars dollars rek la te bu fekkee da nga dem ci regular regular financing then ñoom bu ñu la leblee two hundred thousand dollars boo leen di fay da nga leen di fay two hundred uh, hundred thousand dollars mais nga fay interest on top of every every month so so what is the difference then parce que ki nga xam ne dafa nekk islamic financing est ce que kooku dafay est ce que kooku dafay dafa nekk business boo xam ne it's giving you the money for free da lay jox two hundred thousand dollars ne la non non non léegi yow doo ma fay dara there is no bank that can that can sustain that that, that type of uh, uh, environment whether it's a bank or a financial institution at the end of the day ñoom tamit they are trying to make money if for nothing else ku mel ni man bu ñu ko jëlee ma leen liggéeyal dañu na fay dañu fay secrétaire dañu fay ndox dañu fay courant dañu fay everything donc so to assume parce que ñun dañu yaakaar bu ñu dégg boo déggee interest free rek da nga yaakaar ni waa banque nga leen da la jox two hundred thousand gënal la gënal la kër gi rek après léegi yow nga fay ak two hundred thousand dollars that's not interest free doesn't mean profit free foofu nag laa bëgg a def tuuti point the difference between interest and profit parce que ñu bëri dañu naan ah benn la rek ñii dañ koy wooyee interest ñu wooyee ko profit so li jëm ci li jëm ci wàllu euh, li jëm ci wàllu interest loolu euh, euh, ñoom ñoom Assane Oustaz Assane ñu ngi fi ñoom Haji Omar Diop ñu ngi fi ñoo ma gën a xam alxuraan bi lu yàlla wax ci ci ci ci interest so I'm not gonna dwell too waaye li nga xam daal mooy interest mooy nga lebal nit dara mu teg dara bu mu lay fay loolu moom la charia moom la charia dàq charia dàq nañu daal ku lebal mille dollars moom mille dollars ngay fay ku lebal mille cinq cent dollars cinq cent ba ci one hundred thousand dollars su ko leblite mooy hundred thousand yooyu profit nag moom mu min nañ ko parce que boo xoolee profit mooy tey yow yow ni nga xam ne nga yore bitik di jaay tey bu la neexee nga ne nga jaay yàpp yaa ngi yaa ngi jëndee yàpp bi euh, two ninety nine per pound ci go wholesale bi yaa ngi ko jaayee three ninety nine per pound so you making a what you making a dollar profit loolu lislam loolu lislam dàq ko loolu je pense que ñëpp ñëpp mën nañ ko tey euh, képp liggéey moo xam liggéey boo munti liggéey fii ci jënd ak jaay euh, tàmm nañu tàmm nañu profit right ki nga xam ne day jaay oto mën na jëndee oto bi 1000 jaayee ko 1500 dollars loolu loolu am na ci profit bi 500 dollars 500 dollars in profit ci 1000 dollars 1500 dollars aussi mën nga ko mën nga ko use in a a formula nga ne is making 50 profit so des fois tamit dañuy yaakaar ne pourcentage boo ko déggee rek kon boo nee 3 rek donc loolu 3 percent interest it means 3 percent bu jaayee 2000 dollars he's making 100% profit bu jaayee 1500 dollars he's making 50% profit bu jaayee 1250 uh, uh, he's making 25% profit bu jaayee 1100 mu ngi making 10% profit so the reason why I'm my my my my push loolu pour que ñu mën a dissociate between profit and interest right profit percentage is just a mathematical formula so bu ñu dégagé loolu then maybe mun nañu ñëw ci ne ah comme léegi what type of islamic financing so how is it different than the conventional so islamic financing for mortgage particularly there are three types of financing yoo xam ne is available bi the njëkk ñu ko tuddee ijaara donc ijaara ni ko ni ko tur bi waxee ci uh ci arab mooy rent so ijaara an ijaara transaction li xew mooy it's a rent to own right borom kër gi day jënd day jënd kër gi wala bank bi day jënd kër gi I'm going to use hundred thousand dollars because it's easier mu rent la at the going rate Like mu ne ah dëkk bi nga nekk de the rent the rental market is thousand dollars every month so léegi ci thousand dollars boobu noonu ci bu fekkee am ngeen am ngeen waxtaan ngeen banque banque bi ne ah léegi dinaa jël two hundred dollars yi ma jëntal ma jëntal la ko as a saving léegi eight hundred dollars yi moom laa jël ma def ko sama profit right so on ijaara transaction mën na nekk five years ten years wala thirty years léegi every every month banque bi mu ngi lay da ngay fay rent moom rent to own lañ ko tuddee rent to own dajee benn portion bi mu mu mu mu féetewoo ko beneen bi moom mu mu séeval la ko bu at bi demee ba jeex tey fekkee ni yow saving two hundred dollars bu at bi jeexee da ngay di nga save twenty four hundred dollars right twenty four hundred dollars la banque bi séeval boo fekkee dem nga five years dina nekk uh, about ten uh, twelve thousand dollars léegi banque nga ah kër gi de maa ko doon jaayee one hundred thousand dollars léegi am nga fi twelve thousand dollars right twelve thousand bi moo ko génnee ci sa hundred thousand When you are yaa ngi yaa ngi kër gi mu you euh, got the money you can pay it pay it eighty thousand if you don't have the money then you go another five years and so and so forth so rent to own you you renting the house mom, he's taking uh, as a as a bank so when you look at it it's not very interesting because uh, you're renting, but when are you going to ever uh, on on the house? Because there is very small portion of mooy dugg ci mooy dugg ci ci uh, ci police So the second type of financing moom to tudd musharaka. Musharaka boo could déggee my partnership agreement. So on a musharaka agreement, the bank ak yow you buy the house together, right? So example the bank will sell the house for one hundred thousand dollars. Or if the house costs one hundred thousand dollars, yow and ñëw nga ne am not thirty thousand and the bank brings 70,000. Then you buy the house and you, you are partner on, on that house. So what happened then was you have 30% equity, the bank has 70% equity. And the musharaka ni ko mëna déggé moy man ak Oustaz Assane tay mën nañu né dañu bëgg bokk compagnie moom mu indi 30000 mumu mu indi 70000 ñu jënd ay auto ñu ne dañu bëgg dañu bëgg indi compagnie pro like bu ñu indee loolu donc bu at bi jeexee tey mën nañu xool suñuy profil ñun ñëpp lu ñu am ci kii bu ñu amoon tey euh, hundred thousand dollars profit den boobaa man damay moom day jël thirty thousand man ma jël seventy thousand right parce que we on a partnership moom today, tuddee moom lañu tuddee musharaka ne musharaka generally what happen moom xaw na nuroo tuuti ak tijaara bi rent on bi but it's different in the sense that in the musharaka moom boo banque bi moom every time when you make the payment very similar to a conventional when you make a thousand dollar payment for instance the bank will take portion bi nga xam ne moom mooy profit am mu ne la waaw my profit for this is going to be hundred thousand dollars my profit is going to hundred dollars right and your and uh, is going to two hundred dollars li ko wutee ak ijaara ijaara moom bi ñu ko waxtaan moom dañu jël two hundred tegal la ko bu fekkee une musharaka moom banque bi li mu bëgg mooy mu jaay la share am la declining declining balance co-ownership lay nekk mooy every month rek bank bi da lay jaay share yooyu yaa ngi commencé woon tey yaa ngi commencé woon eighty percent right léegi bank bi day jël sa two hundred dollars yooyu mu ok two hundred dollars is worth one point two percent three percent share so léegi then you go from eighty percent to eighty three percent the next month nga jël sa two hundred dollars Pay up ko bank bi bank bi wàññi wàññi share so bank bi now he's going from eighty percent maybe to seventy percent to sixty percent to fifty percent yow ngay yow ngay go from 20 percent up to 40 to 50 da nga xam ne nga demee instant yoo xam ne yow nii ngeen commencé you started right here and the bank started right there so every month yow your your equity start going up and theirs is coming down every month every month da nga mel moom boo xam ne you guys become 50 50 honest and then now yaa ngi inverse yaa ngi reverse uh, the strategy now every month as you go up yow equity go up and the bank goes down Let the ba nga 100% owner and the bank goes away loolu mooy musharaka beneen bi moom murabaha so murabaha moom boo ko déggee la ñëpp miin euh, ci finance mooy lan mooy da ngay jënd jaayaat the bank will buy the home for hundred thousand dollars they will put their, their profit for fifty thousand dollars and sell to you for hundred and fifty thousand dollars and you make equal payment for thirty years or fifteen years or whatever term so Mushawara Kabul moo gën right now the bank I'm working with the Van Bank that's what we do we do uh, we do uh, uh where you find a house with the real agent you know a house is going to cost hundred thousand or two hundred fifty thousand dollars whatever the price is we calculate and we say okay we're selling you this house back to you at the profit and you make equal payment loolu moom the key type of financing so when you get the financing is, then, then you're going to talk about, you know, how do I qualify for, for mortgage, right? For the qualification is going to be the same regardless of whether you are def islamic financing or nga def regular financing ku bëggul jënd kër li ñu njëkk a def mooy euh, tey bu doon si dëkk nga xam afrique nga xam ne du bank dañu ah arwa amoo sëñ cheikh nii ma laajoon ndagam na ah, sëñ asan nii ndax eh, dina for dinay fay dinay fay ay borom that's a credit so ñun ñi dañu si jafe naan man aw crédit mos ma jël dara wala xaw crédit mais crédit dara lu dul euh, laajte pour xam ndax seen cheikh mi dina fay bokk that's all it is simple as that so United States the, the way they did it and they were really really smart about that mooy they have credit reporting agency yow mus nga am credit card fay nga fay nga sa sa sa bill on time ñu report ni ah seen cheikh mi associé with social security number b moom day he's paying his bill on time uh, utility company will report you, uh, hospital will report you, anyone you are dealing with them with credit will la report ne ah diw mi daal ba ma sëq ak moom mu that's what the credit score is am nañu waxtaan boo xam ne ko fi waxtaan ak credit and explain what the credit score is in general that credit score will range from 300 to 800 and the higher the score is the better is you going, are going to be so boo what you want to be fekkee da nga bëgg a jënd the minimum most bank will require is 640 the domain the best, but the best position you can be is 700 and more. So Bukekeya, you're thinking about buying a home, make sure that your credit score is 700 or more. If at the very least, make sure it will be around 640. So credit score is very important. waxtaan nañ ci amoon nañ ci waxtaan boo xam ne euh, ci jamono yooyu ñu génn te xam naa du ñàkkaat bés boo xam ne incha allah dinañu gën a yaatal ku fekkee sa ku sa crédit baaxul nooy def pour defaraat ko ku amul crédit noo def pour euh, pour am crédit ak ki am crédit ni ñuy def ba maintain crédit donc boobu moom mooy the first number one requirement yi nga xam ne everyone is gonna look at that incha allah ngeen baal ma tuuti rek ma def affaire septième o oh, docteur bi ba LUS donc number number one requirement mooy euh, mooy credit score six four yi moom mooy minimum bi seven hundred is what we really want second requirement bi mooy ki bëgg a jënd kër aussi il faut am parce que aussi bu fekkee ni yow euh, dëkk bi xamuñu la nga bëgg a jënd kër li lay laaj mooy est ce que yow mi jënd kër gi li ko li français wax solvabilité est ce que yow mi yow dëgg-dëgg war nga mën a di nga mën a fay di nga mën a fay kër and for that in us in order for the bank or anybody to know whether you can afford the house or not you have to be working at least two years in your current profession not necessarily the same job mais lépp loo xam yaa ko doon def na nga am sa tax yoo xam ni for two years dina wane ni yow mii daal yaa ngi liggéey moo xam da ngay you can you can be a truck driver you can be a taxi driver you can work in a factory you can work you work at a hair shop hair salon engineer doctor loo mën def daal the bank is going to want you to have two year of tax return to prove me yow nii dëgg-dëgg mun nga mun nga mun nga jënd mun nga fay tëdd in addition to that mooy non seulement you have to be working but also you have to be able to afford the the house payment mooy lan mooy yow naam yaa ngi liggéey waaye mais li nga xam ne moom ngay fayeeku wax dëgg-dëgg war nga ci mën a fay sa kër fay ci say fay ci say expense te topp sa njaboot banque bi ni mu koy xoolee mooy dafa ne yow sa mortgage payment number one all your liabilities are together mooy fekkee am nga credit card fekkee am nga car payment fekkee am nga loan loolu yëpp buñ ko dajalee on a monthly basis moom la ñuy xool ñu ne ah loolu de toll na ci toll na ci am na seen number toll na ci two thousand dollars ñu ne ah yow mii boo bëggee jënd kër donc war nga mun a at least double that money right parce que tamit euh, boo jëndee kër ba fay say mortgage fay say lépp war nga am loo dundal lu dundal say njaboot loo fay euh, school ak everything so am na benn formule bu ñu tuddee debt income ratio is very important mooy dañuy jël sa sa debt yëpp ñu boole ko ñu divide ko by your income it cannot be more than fifty percent most banks sax dañoo naan forty five percent fa la yem bu ñu bëgg bëgguñu nga dépasser forty five percent of your of your income mu war a dugg ci fay ci fay ci fay say bopp donc loolu tamit mu mu nekk lu am solo euh, problème bi ñu ciy gis chaque fois ci ci wàllu boobu mooy par exemple ñi nga xam ne ñu ngi nekk self employed is the toughest part que ñoom bu dee ñoom du ñu xool seen gross income mais seen net income la ñuy xool mooy yow ya da ngay da ngay dawal truck wala da ngay dawal taxi wala da ngay def delivery wala da ngay dawal Uber li ngay indi every month is one thing but also li su moo important mooy ñaata nga dese parce que mën nga ne ah man de fi every month dina am five thousand waaye boo jëndee essence fay fay say all the expenses you might be only two thousand left so foofu tamit ñu bëri ñu fay def ah, I can afford it mais on the income tax du ko wane waxtaan waxtaan nañ ci ak soxna awa benn jour ci wax ci income tax mu nekk loo xam ne dafa very important parce que euh, tubaab kayit la xam right so tey boo ma woo ne da nga bëgg a qualify for mortgage mun nga ma expliquer ba suba how much money you're making, but the only thing I'm going to look at is your tax return. Because when I could tax you're not making that money. So, I say, wow, man, ranking salon, be $98,000 every day at the end. But the tax return, what does, it, what does it show? Your net income on your tax return, normally it will go for if you qualify, when I qualify, how it's going to work. So, mu nek lo xamni parentage am solo then the third requirement for anyone who's trying to buy a home is down payment right am na ay programme yoo xam ne di nga koy dégg naan zero down payment euh, euh, FHA euh, three percent down payment ngay joxe conventional up to five percent interest only mën nañu def zero down payment but generally in Islamic financing because you islam li mu bëgg mooy yow mi nga xam yaa ngi def mbir sa sa loxo sa loxo nekk ci biir right ndimbal na fa fekk loxo borom so you're not starting because the goal of Islamic financing, as opposed to go to regular mortgage, moi, we want to get you in the house and get the bank out as soon as possible. Whereas bank ni the lu talk gëna tok ci kër ko analyse, nek, mu Where all the Islamic financing company together, send goal money, get you in the house, you can afford it, you make the payment, le plus the possible, you get it to bank bi, and then they, and then you stay with your home so loolu mu nekk loo xam ni moom mooy différence moo tax euh, finance They require most like they they require five percent down des fois mun nañ dem as low as three percent down payment for first time home buyer mais man by experience what I'm seeing the most is euh, people putting twenty percent down and the reason twenty percent is important mooy it allows you to avoid the mortgage insurance anytime you xam ne doing less than twenty percent you're gonna pay mortgage insurance faster. mooy mooy mooy li nga xam ne moom la banque bi teg assurance bi nga xam moom la banque bi teg bu fekkee yow di default a récupérer seen xaalis donc daal ki nga xam ne moo bëgg a bu ko mënee moom mooy li jël waaye bu ko mënul nag mun na dem mun na go down ba up to up to 5 wala loolu moom mooy euh, loolu moom mooy différence ci euh, ci mooy requirement yi nga xam moom la ñuy soxla bu fekkee da nga bëgg a jënd bu fekkee da nga bëgg a jënd kër euh, credit score minimum 640 down payment of 5 pour cent or more and then employment of two years in your current profession at least. in a nutshell loolu daal moom mooy moom mooy basic basic yi nga xam ni moom ki nga xam ne fa bëgg a jënd kër moom lañ koy wax moom la moom la moom la moom la war a a beneen bi ci nekk rek boobu mooy argument bi mu bëri xam naa ne question yi dina ci boobu ci demee mooy dëgg-dëgg yi daal nuroo na daal yow li ma wax ni islamic financing bi ak ak ak ak conventional bi benn la waaye nag du benn parce que li ko wutee mooy euh, pour bañ a dugg ci détail yu l'islam détail fiqh mooy li nga xam ne moom mooy lenn li intérêt la mooy da nga leb banque relationship bi nga xam ne nga am ak banque bi is with the money Bank bi lebal na la hundred thousand dollars yow daal boy fay da ngay fay hundred thousand dollars plus profit bu dee islamic financing moom lebalu la xaalis in in fact you don't even it's not it's not a lending it's not a lending relationship right bu dee islamic financing boobu the mënoo ñu woowee lender we actually either a partnership or a business transaction bu dee partnership bi la moom mooy comme waxee sax mooy musharaka bi dañuy jënd dañuy jënd kër gi ñu bokk ko ngay fay di jënd di jënd di jënd sama part every day musharaka bi sax ni ma ko mën a expliquer mu gën a leer mooy day mel ni tey ñu ne woon kër gi ñeenti néeg la right it's four bedroom house léegi yow ba nga ñëwee one bedroom bi nga jënd banque bi moom three bedroom ba banque bi moomee three bedroom yow nga one bedroom yow boo fayee month bi nga fay euh, banque bi jël profit am ne la ah, boo bëggee de mun naa la jaay beneen bedroom ci kër gi nga ne waa baax bëgg naa mu jaay la deux two bedroom léegi yow am nga two bedroom banque bi am two bedroom right ngeen di dem ngeen demal five years wala six years wala ten years nga ah, ah, naa xaalis léegi bàyyi ma jël de third bedroom bi right léegi yow ci kër gi yow yaa moom three bedroom yi banque bi moom one bedroom ngay dem di dem ba nga xam ne fi mu toll nii dem nga ba nga xam ne léegi banque ah léegi yow pare nga yow fi kon léegi yow kan yaa moom kër gi man fi mu nekk gën naa sama loxo nga def donc loolu moom mu musharaka bi donc si nag euh, di ko wuteeg ak ak banque bi da banque moom day amotage rek yow bés bu nekk yaa ngi fay boo fayee moom mu kon ne moom mu kon ne jot xaalisam bu dee musharaka bi comme ni ko waxee bu bi ko waxee sànq boobu moom moo gën a simple boobu ñun ñëpp mën nañu ko comprendre da ngay jënd suñu seex moom xam naa ne bu dee tabaski jot na day def opération tabaski day dem day dem day dem dara day dem euh, fële Fuuta jënd fa jënd fa xaru cent mille ñëw jaay ko 150 000 am na ci droit la bay wa xam naa bala ngay sore man amona ben laaj rek bi nga xamni peut-être que dana ki ki waxtaan bi tuuti rek moy xam nga bu ñuy dégg islamic finance donc dafa mel na dañuy sous-entendre que ni alors euh, euh, ñoom dañu nekk ñi nga xam ni dañu am seen xaalis nekk foofu pour jëndal la wala da ngay ñëw nga def fifty pour cent wala eight twenty pour cent wala yooyu mais li ma bëggoon laaj dëgg-dëgg mooy ndax mhm. euh, seen structure yooyu dañuy am affiliation ak ak banque daal banque conventionnelle banque yi bi nga xam ni mhm. donc euh, parce que xam nga fi mu nekk nii euh, foofu dafa am na benn sew-sew bu ci nekk ma bëgg mhm. tuuti pour nga élaborer foofu tuuti quoi incha allah ah bi nga laajte laajte bu am solo la parce que ñiy jëm ci service finance yëpp foofu la jaar ñu ne ah yéen de ngeen wax ni rek waaye yéen boo leen fay da ngeen demaat di jëlaat jëlaat xaalis ci banque bi moo tax ñu ne amuñu différence so euh, fii ci United am na about four company yu def tànk financing euh, évidemment compagnie may liggéey moom laa njëkkee defoon bank right moom bank la structure la carrément am na guidance residential moom tamit euh, structure du moom du bank mooy financial la am na UIF Uh, university university financial am na aussi Lariba loolu moom tamit bank so generally what happened is the bank bi nga bank la moo financial institution bu mu munti US uh, uh, is structured so much that they need always amul benn bank bu mun a taxaw di the the level, di lebal for thirty years bank boo gis tey tey bu amoon balance sheet am mën na fa am billion dollars right A billion dollars boo commencé di ko jaayee di ko jaayee bu wala ni California for example eh, house is easily cost a million dollars so you you you, you do a thousand house wala one hundred thousand house xaalis bi jeex na so so the bank in general dañuy am dañuy am seen asset ñu loolu loolu la ñuy commencé ñu moom la ñuy moom la ñuy jël di ko di ko lebal parce que yaa ngi lebal over thirty years so the bank doesn't look at dafay toog lebal xaalis xaar thirty years xaalisam jot donc bu ko defee balance season dafay gaaw a jeex so bu dee financial institutions what they do uh, thankfully in the US they are nañu ko the secondary market secondary market mooy lan mooy Freddie Mac Fannie Mae Ginnie Mac A government institution in your ni their sole purpose moom mooy to provide liquidity in the in the financial institution mooy lan mooy gouvernement bi moom banque bi moom mënul mënul liggéey ci three years four years banque bi dafa time frame la fa it's like two years three years five years maximum ten years Mom la bank, mom la bank bi di di liggéey mais bu dee gouvernement nga xam ni moom eh, mu ngi talk about ay ay ci ay generation right so what what happened in in in the mortgage industry mooy the government di provide liquidity to the asset so banque bi bu la finance moo xam islamic finance la moo xam regular finance what happened is moom mën na ko jël eh, léegi sell sell sell eh, mortgage boobu wala note boobu into the secondary market secondary market mooy kan mooy mooy féminin bu dee yeneen banques yi nag traditionnel ñoom li ñuy def mooy dañuy dugalal seen biir right dem da ngay dem euh, da ngay jël finance tey léegi ci ci ci Bank of America nga toog deux jours rek wala nga toog trois jours rek ñu ne ah yow mortgage services schemes gaay nañ gaay ko ci seen banque ñoom dañuy jël dañuy jël dañuy jël banque yooyu dañuy jël euh, mortgage bi di ko jaar ci seen biir bu dee islamic finance we cannot do that mënuñu jël euh, mortgage parce que du mortgage contrat la donc mënuñu ko jaay mënuñu ko jaay beneen banque banque duñ ko But what we could do, well, we can sell it to to uh, to Fedbank. So bank, uh, Bank, mun na jënd mun na jën mun na jënd kër gi tey one hundred thousand dollars jaay la ko one fifty bi xam moom la am ak mun na ko jaayaat mun na ko jaayaat uh, mun na ko jaayaat uh, uh, Fannie Mae Fannie Mae ak Freddie Mac ñoom ñëpp benn ab bank parce que ñun dafa la ñuy wax la même bank dañ ko jaayaatee Fannie Mae bank Freddie Mac bank these are government institution yoo xam ni ñoom li ñuy def mooy dañuy dañuy jël dañuy dañuy opérer le secondary market dem ci financier ñu ne ok yow am nga contrat ak Cheikh Seck ñun mun naa jënd contrat boobu bu fekkee yow ma delloo la waat one hundred thousand dollars léegi amoon nga ci profit yi fifty dollars man léegi man naa la ko naa ko jëndee one point léegi bank bi jot hundred twenty thousand mun a jël ko jaay ko suñ jox lebal ko suñ suñ maamu suñ maamu jënd ak jënd taw donc that's the main bu dee bu dee bank yi use dañ koy jënd ci seen biir alors bu dee isaan finance yi Ida bu dee laa laa riba ak ñoom am na lu ñuy def ñu genre natt la ñuy def donc ñoom dañuy am benn benn set amount of money benn benn three hundred million wala two hundred million boo xam moom la ñuy invest bu jeexee dañuy toog ba amaat xaalis pour mun ko investar mais bu dee ñun wala beneen banque yi li ñu def mooy dañ koy dañ koy jaay na secondary market as a contract bu ko defee secondary market boobu noonu give us the liquidity te ñu ñu mun a ñu mun a lendal beneen beneen institution wala beneen keneen ku bëgg a jënd. jërëjëf sëñ Ah, donc xamaa ah, nu koy sa mu woon finance bi xaal ñu laajee moom ma joxe turu turu banque yi nga xam ne Islamic Bank euh, bi ma ci tàmbalee bank sa wéyu tànk mooy defoon euh, bank mi nga xam ne moom ñoom laay ñoom laay liggéeyam du du mura euh, mura baxa donc defoon bank la maa ngi koy dugal ci cat bi am na aussi Guardians Residential Guardians Residential ñoom ñu ngi côté Washington ñu ngi koy Washington yooyu noonu foofu la seen office nekk am na aussi UIF UIF ñoom mu ngi mu ngi côté Chicago ak Detroit am na aussi Lariba Lariba tamit moom xama exactement fa lañ def parce que moom ñu beneen financial institution la yoo xam dañuy def islamic financing di la ñoom leen the main four yi nga xamni ñoy def islamic financing ci ci US bi incha allah bu fekkee laajte waaw macha allah macha allah leer na leer na euh, xam naa peut-être que fekkee ni yaa ngi jëm sa deuxième part exposé bi ba pare rek ñu daal di ubbi line bi bu ko defee nit ñi mën a mën a poser question yi ñu bëgg poser bien am nañu ay question sax après mais xam naa ni rek euh, boo pare sa exposé rek comme niñ koy defee toujours rek incha allah. baax na macha allah donc euh, ci ci ci ci wàllu boobu sama deuxième part dama ko bëggoon tuuti accentuer ci ci ci financing in general right état euh, yu financing bi mu ngi fi mu mu nañ nekk euh, wax naa sànq ci wax naa sànq ci qualification yi euh, dama bëggoon pousse tuuti rek ci qualification ki nga xam ne ku bëgg a jënd kër lan la war a def parce que aussi comme ni nga ko waxee damay def islamic finance but I'm also so am real estate agent mooy ki nga xam ne ku bëgg a jënd kër bu fekkee ni bon bu fekkee ni côté Kentucky nga xam ne am licence Kentucky main bi but also I can provide uh, a little bit expertise in general to your family ne moo ko uh, the first thing that he she's gonna he or she gonna need to do moom the qualification right make sure that you moom mun na qualify mun na qualify for the kër qualification boobu noo koy defee mooy go with the bank boo demee bank bi a file foofu application application all the banks universally they are gonna look at these three things credit score One hundred percent minimum 640 Euh, ki nga xam ne bëgg na la jënd moom na fexe ba na xool credit score am ni muy xoolee credit score am man war a advice always is bu fekkee ni amoo nga download credit karma credit karma app la boo xam ni euh, is free and you can check your credit score and it doesn't uh, doesn't affect your credit score unfortunately the score bi score bi nga jot ci credit karma is not always reflective of of your real score but it's a good indication est-ce que yow mii sa sa sa sa baax sa score baax na ou pas uh, usually it's about 20 to 20, to 40 points lacking than the than the uh, regular regular bank May almost, both boo the credit card ba nga xam ne yaa 700 I can guarantee you whatever the bank ci it's you're going to be around 640 to 650 donc beneen bi aussi mooy uh, bi nga xam ne moom moo gën a wóor sax mooy am na am na website bu ñu tuddee uh, annual credit report dot com boo xam ni képp ku nekk mën nga dem foofu nga pull sa credit score bopp yow credit mun nga dem nga cré nga puudar sa credit report sa credit foofu yow sa bopp pour xam exactement fan nga féetee Aliou credit report com boobu noonu mun nga fa pour ñetti credit bureau yëpp Equifax TransUnion ak euh, ak euh, euh, Experian mun nga ko fa pool ba xam yow sa credit sa credit report lan la ñoom général boobu bu ñu jox la score da ngay fay 19 dollars wala 20 dollars si ñu jox la sa score mais at least bi nga xam est que am nga fa ay ay derogatory information sa credit boobaa di ko mën a adresse beneen bi mooy bu fekkee ni am nga credit card mooy general rate mooy que ni yow security score xaw nga seen parce que credit card company they a good score but what mooy da ngay am credit card da ngay am credit card am credit report bu baax nga dem ba ci biir nga yàq ko wala mu yàq ko yëgoo ko donc euh, most of credit card company yi léegi bu fekkee seen application yi nga xam moom ngay am seen téléphone yi boo ko xoolee dinañ la jox sa sa FICO score Haiku is, uh, it's, it's one of the, the, the, the scoring models in the family. In university, bank Europe, I would say about 80% of the bank FICO score la ñu so if fekkee am nga am nga PNC wala nga am Chase or whatever Bank of America whatever credit card bi nga am boo xoolee ci app am nga fa di fa gis léegi foo mën a xool sa FICO score so loolu mooy def def number number uh, number one step mooy nga fexe ba xam la mooy sa credit score bu fekkee yow score is bad hmm? mooy que daal moom gars yi jiw doo doo doo fay bor. I mean it's as simple as that some des aussi waaw man dama defoon lii wala kii waaye at the bottom line mooy if your credit score is bad mooy you na paying your bill on time. des fois am ay collection wala nga xuloo cable company bi ñu ne yónnee naa la kii deful la nga mer te fii moom Amérique mënoo mer you got to take care of it. if you have an issue with the credit mobile wala AT&T ñu ne la yaa war a fay fexeel ba nga fay. boo demee hôpital si mbokk jigéen ñi fa la gën a bëree boo demee hôpital ñu ne la bil nga ah ñu dañoo bëri soof amee moom dañoo bëri bil nga jël foofu di sànni rek bés bi nga ñëw nga soxla ko nga xool si kër mu nekk 600 wala mu nekk 500 and then boo ko soxlaa mënoo ko mënoo ko utiliser so it's very very important I cannot stress that enough mooy we all need to bu fekkee mosoo xool sa credit score demal ci annual credit report dot com and pull your own credit report wala nga download credit karma seen app credit karma mu mun na la def sa free credit report wala ndax fekkee am nga crédit ba pare nga dem ci banque fi nga xam ne crédit crédit dafa dafa bon ñu am nañ ci mbokk mi ci ñëwoon bu nekkoon bu nekkoon euh, sëñ Mamour moo nekkoon euh, def na Texas mu ngi doon wax ci fixe euh, credit score donc moom tamit boo jokkoo ku mel ni moom jàpp sama turam dina la mën a jàppale pour pour nga nga fixe Ibrahima eh exactement exactement donc ku jokkoo ak moom dina la mën a jàppale pour nga pour nga pour nga fixe pour nga fixe sa sa crédit so bu fekkee ni eh, crédit bi baaxul baax amoo crédit boobu moom mën nañ ko toppandoo moom moo gën bañ a am crédit ci amul crédit moom li ngay def rek mooy fexe ba establish credit and the first thing you can do to establish credit mooy you open you open a credit a secure credit card so most bank mën nañ la da ngay dem nga nga jox leen cinq cent dollars wala three hundred dollars wala whatever the amount is then they will give you a regular credit card but what they do is mooy dañuy hold sa cinq cent dollars as a guarantee léegi yow ngay use boo usee point dollar fay use point dollar within six months you're number two you could do mooy tey boo amee ku mel ni uh, bàyyi mel ni seen Cheikh mu nga xam ne am na crédit card bu baax li ñuy def mooy mun na koo crédit card wala frère wala sister wala jëkkër wala jabar ah damaa bëgg a yokk diw ci sama crédit card and by adding that lépp loo xam ne defoon na ko ci lu baax dafay reflecté ci yow waaw ah, loolu donc donc beneen beneen yoon la boo xam ni nit mën na ko def pour uh, uh, pour pour mun a boost crédit beneen bi aussi mooy ñu open eh, li ñu tuddee consumer credit credit lu mel ni eh, credit eh, score yi ay TJ Maxx lu mel ni ay Macy's ñooñu tamit mën nga fa ib mën nga fa ibbi carte carte boo xam ne boo ko ibbee da nga koy fay on time waaye li am solo daal mooy na nga fexe ba da ngay fay on time the second thing mooy li ñu tuddee credit utilisation na nga fexe ba bul dépasser 30 pour cent of your of your of your credit limit so lépp lu la mënti jox ci credit ci credit limit ci banque bi ci credit card na nga fexe ba bul dépassé plus de thirty pour cent ideally boo ko mënee sax mën na ne jéemal yem ci ten pour cent yi loolu tamit it's gonna help it's gonna help you uh, have a, good credit score beneen bi mooy have a, a variety, variety of, of, of credit line parce que credit card benn la ci mais installment loan tamit benn la ci installment lu mel ni lu mel uh, car payment wala lu mel ni uh, benn benn benn bor bu ndaw boo boo boo leb nga koy fay bokkul la credit card loolu tamit it's gonna help you donc yooyu yëpp ay ay astuces la yoo xam ni incha allah bu ñu duggee ci question yi ku ci ku ci ku ci am question rek incha allah dinaa ci mën a yaatal nan la nit di fexee daal ba mun a ba mun a establish euh, crédit parce que crédit moom mooy li nga xam ne lu lu lu am solo la euh, te c'est sine qua non boo amul crédit moom banque la sa xool so bu sa war am hundred thousand dollars income euh, wala mun a joxe twenty five percent down payment amoo crédit da banque dina gën a lokaat ci parce que it's an indication that yow mi doo faykatu bor I mean there is no other way to say that beneen bi euh, euh, ci ci ci requirement yi ki nga xam ne dafa bëgg li mu war a mën mooy fexe ba am down payment waaw des ñu ne waa mën a am 3 pour cent laa am wala dara but ah how you nga ne bëgg na jënd kër and understanding that house is an na nga fexe ba dajaleen down payment bu mu mu gën a baax the the stronger to get from the bank whether you do Islamic financing or regular bank the better terms you're going to get donc 20 pour am 20 pour cent mais daal Euh, na nga jéem a fexe daal doo doo mën a am au minimum five pour cent moom mooy down payment bi down payment boobu da nga koy dajale leneen li nga xam ne ñi jënd kër dañu dañu nekk mistake boobu all the time mooy euh, ñun euh, Afrique dañoo tàmm ay bokk ay natt wala bokk ay am naa xaalis si suuf boo xam ne sama kër alors que financial institution li ñu bëgg gis mooy financial stability te loolu tamit dinaa ci accentuer tuuti ci wàllu finance pour suñu mbokk yi parce que des fois da doon dégg nit ñi la waaw man de bëgg ma dugal sama xaalis aw bëgg aw sama liggéey bi ma tax moo tax bëgg ma dugal américain yi tubaab bi ñu xamee da nga am wutal daal alors que there is nothing that could be further from the truth right bi euh, du ñu du ñu wër di xool kan moo kan moo am xaalis si kontam pour ñu xool pour ñu boole ko ak ARS wala ñu jaxase ko the bank do not do that ñun ñi erreur bi ñuy def mooy par exemple ngay gis li gën a dangereux mooy da ngay da ngay dajale xaalis bi sa kër ba mu am twenty thousand dollars xëy si dara da nga dugal ci compte banque foofu anytime you doing that uh, anything over over ten thousand dollar deposit the bank is is obliged to to file a CTR right CTR uh, transaction report la something transaction bi ci bi la mais anytime boo déposé xaalis tool noonu rek banque bi dafay taal CTR ne ay ah Pape Ndiaye bi ñëw na fi dugal na xaalis tool bi donc li gën mooy yow mi nga xam ne nga xaalis toujours del dugal tuuti am rek dugal fa bu ko dajale bu ko dajale mu bëri loo am dugal fa tey bu la neexee nga dugal two thousand que booy booy booy jënd kër down payment bi nga xam moom nekk moom ngay utiliser the bank is not gonna want that loolu ñëw rek tëb tëb rek dugal foofu li ñu tuddee euh, sourcing the fund so xaalis bi xaas bi in your account at least two months yow mi bëgg a jënd kër di préparer jënd kër na nga fexe ba xaalis nekk ci compte at least two months bu fa nekkul nag am na ay wóor yoo xam ne mën nañ ko mën nañ ci mën nañ ci waxtaan ci kanam question maîtrise yi wax na nan nga mën a def ba dugal xaalis bi waaye daal bul toog ba ne ba pare naa ko jënd kër rek teggi teggi woon naa nag ten thousand xaaral ma dugal ci compte you asking for trouble parce que boobaa banque bi dina dina fayal CPA pour yow te bi ci gën a garaaw sax am na ci des SAA mooy suspicious activity report mooy ki nga xam ne tey banque bi da ngay ñëw ci bank bi tey léegi indi fa twenty thousand dollars cash kooku moom am na benn forme boo xam da koy sànni directement dañ koy yónni AES ñu ne ah mi daal ñëw na suñu dugal na te wóoruwuñu suñu dugal xaalis léegi day as day nekk activité boo xam dafay suspicious boo xam ne léegi yow mun nga toog sa AES woo ñu ne ah yow xaalis bi ko dugalee bi bu fekkee wala fekkee nag yow nga nga nekkoon koo xam ni yaa ngi doon liggéey self employment bi euh, am xaalis waaye di ko nëbb euh, mel ni kan laa war a sax mel ni Oustaz Assane nga xam ne fi allah dina liggéey twenty thousand dollars ci weer ah bu at bu at bi jeexee mu mu fay taxam yëpp ne moom five thousand rek lañ liggéey wala ten thousand rek lañ nga xëy suba dem dugal sa compte bi twenty thousand dollars cash banque bi dina laaj ak fu mu jëlee xaalis bu fekkee yow yaa ngi dugal thousand dollars tey five thousand dollars fii banque bi amuñu sax possibilité rek daal de xoolam la mooy la mooy sa sa sa account donc foofu la ñu bàyyi fa xel yow mi bëgg a jënd kër daal na nga fexe ba da nga dugal xaalis bi sa compte euh, euh, two months foo before ngay jënd before ngay jënd kër beneen bi mooy euh, euh, employment bi euh, moom koy waxoon na ko sànq employment bi moom ñaari type employment moo fi am self employ ak ki nga xam ni moom mooy regular W2 employ W2 employ moom moom moom la bëgg moom kenn ko sànq moom mooy ñu xool ñaata lay fay twenty dollars an hour ñu multiplier ko par forty ñu jox la eight hundred dollars a month eight hundred dollars a week ñu multiplier ko par fifty two divisé ko par twelve ñu xam ñaata mooy sa moom boobu yomb bu fekkee you making uh, you making uh, a year mooy you making ten thousand a month gross income bi la ñuy xool boobaa léegi yow li ñu li ma wax sànq mooy debt income ratio bi uh, dañuy xool rek sa debt income ratio par rapport ak ki nga xam ne nag mooy self employed foofu la gën a parce que self employed moom du ñu xool du ñu xool gross income moom moom net income la ñuy xool lay am waaye bu at bi jeexee gross income bi dafay nekk hundred and twenty thousand ñu ne ko ñu génne ci expense waaye dafa fay oto dafa jënd essence dafa fay nangam dafa fay nangam di wàññi di wàññi di wàññi bi wàññi bi wàññi bi wàññi ba income bi yow léegi nekk twenty thousand dollars foofu mu gën ko parce que ñu naan twenty thousand dollars yi li ñuy wax naan twenty thousand dollars yi que dootuma xool léegi ci two hundred thousand li may xool mooy sa twenty thousand yi nga xam ne moom nga moom nga moom nga wax ne moom moom nga am sa tax moom la ñuy xool twenty thousand dollars ku ko am boo ko divisé par twelve mooy que yow you you making sixteen hundred dollars a month sixteen hundred dollars ñu ne la moitié bi rek moo war dem ci sa ci sa ci sa ci uh, housing expense so so mortgage eh, so mortgage payment cannot be more than seven fifty néew na kër go, mën a jënd boo xam ne mortgage bi son bi less than seven fifty donc problème boobu ñu bëri ci ñun problème boobu la ñuy am mooy da ngay you don't have you don't show enough income to to sustain your mortgage payment donc loolu lu ñu war a bàyyi xel la lu bëri moo tax am na dina am benn maa ngi invité waa rajo bi am na benn benn ji boo xam ne mënuñ ko def euh, waxaal waxal dëgg-dëgg ci business structuring right nan nga mën a def pour yow mi nekk self employed nan mën a def pour structure business ba nga xam ni you gën a show a decent income tax euh, def naa euh, sëñ yaay waxoon na ko keroog tax avoidance versus tax avoidance nga xam ne is legal nan ngay fexe ba yow mi nga xam ne yaa ngi yaa ngi self employed di nga liggéey bi nga wane income bu decent te doo fay tax yu bëri loolu mun na nekk te te loolu hundred percent legal li bon kañ mooy liggéey nëbb gouvernement bi ne ah war a war a war a fay war a fay tax ñoo man aw ma ñu dugal express ba nga xam ne def dara loolu tamit suñu mbokk ani sama euh, seen nday am yi ko ma ko mbokk léppkat bi léeg-léeg ñu koy def naa ñoom nday am dañuy liggéey macha allah liggéey lu takku waaye bu bu ñu waree fayal tax rek ne waa ji ah man dugaloon na waaye man daal bëgg ma fay liggéey dafa mel comme five thousand wala six thousand rek at bi jeex nekkul sens at bi jeex nga yow bi yëpp su nga ne léegi sa income bi twelve thousand la mooy yow yow you making thousand dollars a week boo ko xoolee muy two uh, uh, uh, thousand dollars a month muy two hundred dollars a week nekkul sens boo boo boo demee bëgg a jënd kër doo mën a jënd kër parce que tout simplement daal ngi dugg ci the first hour loolu daal mooy daal li nga xam laa indi woon en tant pour euh, just euh, élaborer loolu euh, ci li nga xam ne mooy financing bi in general képp nga war a jënd principe yi nga principal yi xam moom laa wax léegi képp nga képp koo xam ne dafa ko jënd kat euh, ci principal bi nag I euh, can ku ci am question specific I can elaborate euh, a little bit more wala in general in financing requirement I can elaborate a little bit more wala in real estate comme que sama expertise ci la nekk donc même koo xam ne def islamic financing ku euh, bëgg jënd kër rek ñu jël lool bu ñu amee caution incha allah luñ ci mën suñu kenn kàttan ñu tontu ko luñ ci mënul nag ñu xoolaat delluwaat ci delluwaat ñu ko gars yi waxee delluwaat ci téere yi Google mooy téere mooy téere Amérique bu mag bi delluwaat ci Google xool ko wala ñu laajte ñi nga xam ñooñu jiitu ñu mën ci tontu incha allah taala maa ngi gis soxna Diaw mu ngi am caution waaye nag ñu gën a Cheikh comme ça après nag euh, luñ ci mën rek ñu ñu tontu incha allah. voilà jërëjëf jërëjëf sëñ Fap si si exposé bi euh, donc xam naa ni donc buñ la déggee dafay mel ni islamic financing bi wala xam fi fekkee ni ñu koy wax guidance wala banque bi nga xam ne daal moom liggéey daf mel daal ñetti façon mortgage daal moo fa nekk. mooy wax ijaara bi ak musharaka bi ak mura murabaha. ñetti ki yooyu moo fi am ci kii bi. sànq ñëw nga tamit que ngay wax ni dafa mel ni yéen lëkkoowu leen ñi nga xam ne dañuy def islamic financing bi wala islamic mortgage bi. dafay mel ne lëkkaloo wuñu ak euh, convention banque yi quoi euh, dafa mel na ñoom bu ñu bëggee euh, jaay ak jënd si seen yi ñu xam moom la ñu yore dañuy jokkale ñi nga xam ne mooy Freddie Mac wala Freddie Mac ñi nga xam ni ñoom du ñu ay banque donc aussi xam na dikk nga aussi si co-partnership bi nga xam ni mooy am si diggante Islamic Finance banque bi nga xam mooy def loolu ak client bi nga xam ni mooy mooy mooy mooy jënd kër wala moo bëgg am kër. yooyu yëpp ñëw nañ si mais xam naa ni tamit euh, li nga xam ne moom la ñu bëggoon a euh, tuuti rek am question xam naa balaa ñuy euh, jox ñeneen ñi rek mooy xam nga si conventionnel mortgage yi dañ ciy dégg toujours rek ñu naan ñu naan la escroc bi assurance bi ak ak ak taxe yi donc foofu naka lay maanaam naka lañ koy définir wala nag parce que dégguma baax nga dégg naa sax nga wax wax assurance bi mais mhm. ne dëgg-dëgg euh, taxe bi daal ba buñ ko boolee rek mu nekk escroc bi comme niñ koy waxee mhm. foofu foofu mbir mu nu muy nu muy doxe foofu daal ak euh, relation bi ak euh, kii bi nu muy demee noonu foofu daal laa bëggoon laajte ci ci ci côté boobu quoi beneen question bi tamit mooy mhm. ki nga xam ni tey jii mi ngi nekk ci benn convention mortgage convention nekk ci benn banque mi ngi Citizen Bank wala Bank fu America wala yu demee noonu tey <clears throat> bu fekkee dafa toog ba xam mi ngi bëgg def refinancing dana mm-hmm. mën a jóge ci modèle bële daal di ñëw mm-hmm. ci modèle bi ci def refinancing ñu quoi loolu daal mm-hmm. naa ci am tuuti leer lu ko incha allah jërëjëf macha allah jërëjëf sëñ Cheikh euh, question bi am na solo euh, bi nga njëkk laaj mooy wàllu escrow mooy carte insurance so euh, bank bi in general wala wala muy financing wala islamique wala mu conventional dafa am sa mortgage payment dafa am ñaari part ñeenti part la sax ñu tudd PITI right uh, principal interest right moom mooy li nga xam ne moom mooy moom mooy the main the main li ngay fay beneen bi mooy TI mooy taxes and insurance so léegi you had a choice uh, li ëpp ci ñun ñi dañuy booyee PITI pay principal insurance um, uh, taxes and insurance nga boole ko sa mortgage payment bu ko defee euh, TI boobu moom mooy moom mooy constituer escrow bi moom mooy nekk tax insurance léegi banque yi li ñuy def mooy dañ naan comme que nit ki dafa jënd kër te kër mooy li that's the biggest investment in general that's the biggest investment yi nga xam moom la nit ki di nekk moom la nit di nekk euh, in their lifetime te euh, the numbers are big insurance bi dañuy bëgg nga fay ko dañuy bëgg nga fay ko one once every year Taxi bi nga fay ko once every year a $200,000 house by the Military You have to mu the nekk about $2,000. Insurance is about $1,000. The bank will di bañ mooy yow pay fayee ko la nga dem ba at bi jeex amoo loo fayee tax ak assurance léegi yow banque bi nekk euh, kër gi yàqu duñ ko mën mais banque require mortgage payment bii nii dama ciy boole damay jël two thousand ngay fay every year thousand dollars bi nga for insurance ma ma ma divide divide by twelve so uh, in this in this case dafay nekk par exemple two hundred fifty dollars léegi mu ne la léegi yow sa mortgage payment uh, principal interest The dafay nekk eight fifty léegi man naa la naa la ci yokk two fifty mooy ci moom ngay every month bu koy bu at bi jeexee ñu dugal escrow so escrow uh, basically is the no term for for saving escrow mom mom yow yaa ko mom bank mom. moom ko dañoo ko fay chaque chaque month nga just two fifty. two just two fifty. sa two fifty dugalal la ko foofu January nga am two fifty February around 500 and so and so on. but demee ba December, I'm am 3000 dollars November so général li ñu koy def ñoom file, fay ñu insurance bi nga déparaat nga dem start fresh But the Islamic financing we do the same thing right we can say ok you me parce que euh, bul bul bul if you nga dissocier bi yow li ngay fay pour kër gi insurance parce que yow mi nga xam ne yaa jënd kër nga fay ko ba mu jeex te amoo banque booy liggéeyal taxe donc tax mënoo ko avoid insurance nag it's gonna be up to you most likely you're gonna be like okay jël assurance parce que moo gën a wóor donc hmm. yow euh, whether whether you do islamic finance or regular finance bi nga fay tax insurance ci escrow Legi, benn benn benn kii caveat bi ci nekk mooy bu fekkee ni yow am nga 20 percent equity mooy que ni yow euh, sa valeur kër the value of the house versus yow li nga amee ak li nga amee ci 80 percent mooy exemple kër gi euh, mu ngi jar two hundred kër gi valeur mu ngi nekk two hundred thousand dollars hmm. eighty mooy one sixty mooy yow one sixty da nga amel banque bi banque bi naa ah, suñu ni daal xam naa ne moom doppul bay bay bay bay bay bay ñàkk kër donc léegi kooku moom mun naa ko wóolu que mun na fayal boppam tax insurance bu la neexee nga ko sa paiement so loolu tamit ki nga xam ne dafa bëgg dafa bëgg euh, expedite payment xaasam man I always advise you you take your SOR bu fekkee ni yow xam nga ni yow mun nga ko fay you can afford it take your escrow out because then every month you la mën permit permettre yow nga nga put extra towards your principal comme ça you can affect the house too donc pour tontu sa question woon ci ci escrow escrow daal bu fekkee ni you have twenty percent equity wala nga have a twenty percent down payment bu la neexee nga génne ko sa mortgage payment and you pay yourself every every month or every year ça dépend ci yow wala bu fekkee nag yow wóoluwoo sa bopp wala yaa ngi doog a commencé xamoo ni muy demee I would advise you nga boole ko sa mortgage payment nga xam ne yow sa yoon nekkul ñoom bu moom bu jotee rek ñoom ñoo loolu moo jëm loolu moo ci wàllu escrow am na lu ma mention sànq tamit moom mooy mortgage insurance nga xam ni bokkul ak insurance regular insurance so mortgage insurance moom tamit bu fekkee amoo 20 pour cent te nekkoo ci euh, euh, euh, ci convention FHA ñoom da ngay fay li ñu tuddee mortgage insurance PMI dañ koy wooye right premier mortgage insurance boo xam ni banque bi moom loolu lay fayeeku every month pour que ñoom bu ñu default yow boo defaultee waa PMI bi ñu leen fay like Hadj Mahmoud mi jël na kër mën naa fay dem na ci digg mosul fay donc PMI bi foofu lay foofu lay kickee donc euh, dina dina dina dina cover benn benn I don't necessarily agree with PMI but you know euh, financial institution ñoom ñoo def seen calculation ñoo def seen risk assessment ñoo déterminer but euh, bu fekkee mën nga am daal 20 percent moom ñu gën a avoid paying the PMI donc loolu tamit moom kenn du ko escrow kenn du ko use day nekk règle règle paiement lay nekk deuxième question bi nga laaj mooy ki nga xam ni par exemple dafa nekk ci te def naa sama jiew moom la laaj même chose mooy ki nga xam ni dafa nekk ci rek la benn euh, dem daal ba xelam yee ko wala mu ne daal man daal comme que suñuy am na option islamic financing est ce que nag est ce que mun naa est ce que mun naa est ce que mun naa switch very much so I would say about 60% of what I do on a daily basis mooy mooy mooy switching people to uh to islamic financing from from from from conventional Christian people bi nag it's uh, basically bu dee murabaha bi même même même principe lay fa lay follow dañuy xool ñaata nga amee ñaata nga amee banque bi ñu fay ko put in profit and then you go you go from there dafa am aussi foofu euh, benn sew sew bu fa nekk mooy ki nga xam ne dafa bëgg a def refinance right refinance from euh, from regular to to islamic financing même requirement la ñuy laaj you still have to have a great good credit score you still have to have you don't have you don't need down payment there parce que fu mu nekk nii boobu am nga étude ba pare te boobu moom benn différence bi rek mooy amul down payment but we have to have the job te job bi aussi il faut que mu mun a cover the the uh, fifty percent of the of the month donc euh, soxna Diaw pour tonification tonification sincère bi effectivement ki nga xam ne mu ngi ci euh, mu ngi ci regular financing mun na switch to islamic financing te it euh, boo ko defee aussi ah waaw ñun moom suma sama gars yi ñoom bu ma ko wax ci waaye ñoom dañu naan Euh, aaya bi moom yàlla nee na ki nga xam ne mu ngi def mu ngi def euh, incest mu ngi mel ni his waging his waging war on the prophet uh, on on Allah and his prophet xam naa ni ñoom asa mën nañu génne mën nañu génne aaya bi euh, moom loo xam mooy pour pour rek li ma fi gis moom li ëpp samay customer ci di honest duñu duñu duñu ay duñu ay duñu ay africain rek li ëpp ci customer yi suwene yu ñuy liggéeyal ay people from Pakistan Indian naar yi ñu si gën a bëri ñoo gën a ñoo gën a ci finance islamic financing su mii nag dama ne du du du dañu gën a gëm mais dañu gën a access to information I think that's what it is parce que man nii balaa may dugg ci islamic finance musuma ko balaa musuma ko sax dégg I didn't even know that option boobu amoon so access to information I think is the is the biggest problem that we have te man bu may def exposé des fois may def présentation li may wax ñun dama naan bu même bu fekkee gëmoo ni islamic financing is is the right right it looks like the same léegi yow am nga ñaari option am nga option conventional am nga option so called islamic finance conventional bi moom 100 percent mom. moom jàpp ñun jàpp nañu ni moom interest based Mom moom ñoom nëbbuñu ko sax loolu la ñuy wax moom la wax te te bu dee islamic finance au moins ñu ko tuddee profit and they doing the best we can to to make it uh, sharia compliant donc boo amee ñaari option yooyu all things being equal te li ngay charge li ngay charge fële then why not do islamic parce que tamit boo duggoon boo duggoon tey boo duggoon ci tey ci euh, ci store di jënd ñu ne ñu lii dafa xaraam lii lii mbaam la yaakaar naa ni képp amul kenn ci ñoo xam ne dina dem di ko jënd. Mm-hmm. waaye boo ko tegee boo dina tegee benn yàpp ñu ne la ah yàpp bii moom ah du mbaam de waaye du du du waaw moom xalaal la du xalaal te xel dina ci ñaaw waaye ba léegi diñ fi bàyyi mbaam bi jël boobu. donc euh, mm-hmm. I would say that euh, maybe it's not the right analogy but that loolu rek laa right so. Bisa habillé la bisa habillé ya. len nañ ko war a indi waaye xam nañu du mbaam boobu moom kenn du ko laal mbaam bi moom moom moom fële kenn ko laal nah, waaye bi moom moom wóoruñu mooy uh, considéré la parce que the price is the same at the end of the day what I'm saying is the price is on finance, it used to be it's more expensive but right now it's very competitive parce que ba ñuy doog a ba ñuy doog a commencé man but the company in general hmm. because it was a premium product they didn't have amuñu woon economy of scale donc amuñu woon customer yu bari then ñoom duñu mënoon price was higher. But now with economy of scale, a lot of people do economic financing. The bank's doing $40 million a month, uh, a year, $40 million a month in Islamic financing, but I'm banking in the The guidance agency just did a billion dollars in, in uh, uh, last year, and it's getting big, bigger and bigger. The li ci gën important My mm. Islamic finance let me do a commencé government institution you many mel ni Freddie Mac ak Fannie Mae da gën a war dañu ne woon ñoom duñu duñu duñu duñu ko laal parce it doesn't make sense to them but what they find out is uh, about five to ten years ago wala ten ñoom uh, Islamic finance company seen default rate mooy ñi nga xam ne dañuy dañuy dem foreclosure wala ñi nga xam ne dañuy taw mënatuñu fay hmm. moo gënoon low te ñi nga xam ne nekk conventional bank xam nga tubaab moom uh, dañoo dañoo xale ñu hmm. invite uh, Islamic company ñu ne waa what what what are you guys doing different ba léegi Ferima ak Ferime ñoom ñëpp d' accord di jëndee di jëndee contract yi hmm. and contract islamic finance is is is better moo ëpp value que contract bi nga xam ne mooy contract u contract u régler bank pour pour te dire rek value boo xam ni am na am na loo xam peut-être dinaa ko dugaat ci kanam euh, waxaale 2000 2008 li nga xam ne moom moo nekkoon mortgage crisis bi and how did it happen and what's the difference between that and islamic finance donc ah, euh, baax na waaw kon léegi dama bëggoon laajte foofu si jënd bi nga wax xam nga sànq si biir exposé bi da nga ni euh, conventionnel banque yi mhm. tey jii bu ñu jëlee benn bu ñu la jaayee kër léegi wala ñu jëndal la kër mën ñu toog euh, benn mois rek wala deux mois euh, citizen banque bu la ko jëndalee nga toog un mois rek ñu la léegi sa sa mortgage bi léegi banque of America ñoo ko yore léegi li ma doon mhm. laajte mooy léegi par exemple léegi bu fekkee ni kenn am na mortgage banque of America tey ji mu mu signé euh, ñuy def closing ba yëpp tey ji mhm. alors how long la mën a toog pour mën a bëggoon dugg si euh, convention euh, finance islamic financing bi how long la mën a toog pour ñu mën a refinancing wala boog dugg ci islamic financing bi quoi. again great question so boobu as long as the the transaction is complete then mën na refinance Usually, bank they want they want you to, to stay there for two months, three months yooyu mais bés boo demee ba parce que xam nga financing bi euh, du jour bi nga close rek moom la la lépp di di right mm-hmm. parce que you dañuy biir kër gi dañ ko jël yóbbu ko ci carnet clerk bi ñu registré ko mu dellu si waat bank bi set up set up on the end so usually it takes it takes about a month or two pour que yooyu yëpp mën a nekk in place pour que yow nga xam yow mi bank bi nga ci war mais bank yoo xam ni buñ la closé tey ba jot ba jot xaalis bi dañ koy jaay fee dina ko jaay ko feni ne within like a week or two parce que dañu soxlawaat seen xaalis bi directement possible but to to be specific to your question bu fekkee ne danga danga finance ak benn bank I would say I would I would always advise you wait at least two months check everything is in place euh, bank bi yónnee na la sa first mortgage statement nga xam ne fi ne ni ñoom pare nañu pour bu fekkee da nga bëgg a def refinance nga nga refinance boo xam ne nga refinance with euh, with seen bank wala ngay def islamic financing des fois sometimes man i am customer boo xam ni euh, for some reason I'm not able to qualify them right mais dañuy jënd kër with a builder and the builder they make it more easy for them well they give them some incentive the builder dina leen jox seen five thousand dollars for the closing cost wala whatever te yooyu mu nekk ay ay coûts yoo xam ne diis na nga xam without that ñun duñ ko mën a afford so I tell them it's a choice right you go with your builder or go with your regular bank boo demee ba boo demee ba ba ba settle down boo ñëwee ma refinance la am na koo xam ne refinance within three months of him buying the house parce que kooku moom moom moom ribaay moom da ko da ko da ko doon tere nelaw moom moom ba mu waxee mu ne su ñëwee ñëw mënuma mënuma nelaw so within three months bu mu jëndee kër gi mu ñëw ñu refinance ko euh, mu dugg ci islamic financing right after that so to answer to answer your question within two to three months rek mun nga mun nga mun nga mun nga mun nga refinance li ma doon wax léegi ci affaire bi jënd jaay bi euh, foofu tamit am na solo peut-être dañ a élaborer am question mel noonu mu mel ni aussi maa ngi. am question bi gis euh, Mariama Sy. asalaamaaleykum. waaleykum ah, man la soxna Jeewo maa ngi ba si sëñ Pape ñu ngi nuyu di la ziar bu baax baax di rafetlu waxtaan bi euh, bu ñu dellusiwaatee tuuti si refinance bi nga doon wax léegi. Mhm. how often do we have to do it ndax home owner bi mën na refinance twice a year or nan lay demee noonu. waaw amul amul limitation fi how often you can refinance but refinance has to make sense right. You don't refinance just for pleasure of refinancing bañ na ko ba ñun bu ñu def refinance am lu ñu tuddee NTB net tangible benefit what is the net tangible benefit yow mi bëgg refinance lan mooy lan mooy sa goal mun nga refinance bu la neexee every every two months but refinance has a cost like you gonna have some places of closing cost For example, if bu fekkee ni tey refinance the cost is gonna be about five thousand dollars yow every two months you refinance te yow rate bi ngay rate bi ngay jóge ak bi ngay fay amul différence then you know recouping you know recouping your money so refinance has to make sense so there are three or four main reasons why you want to refinance. Number one was to get a low rate. because the rate determines how much goes into you and how much goes into the bank. If you contact danga amon four, danga amon tay five percent right now. The, the, the going rate is around three percent on a fifteen year, on a thirty year. Then you want to refinance because most of the money that you're making a payment is going to go towards you. Donc, lower the rate is always a good reason why you want to refinance number two my uh, shorten shorten your amortisation My amoon nga amoon nga contrat bu thirty years léegi nga bëgg ko indi ci fifteen years parce que thirty years tey boo xoolee boo toogee di a mortgage payment for thirty years you might end up paying two hundred thousand dollars bu fekkee fifteen years you pay one hundred you pay eighty thousand dollars in profit so lower your your term always help you save money in the long term in the long run so bu fekkee nga am thirty years nga di faale indi fifteen years wala nga faale indi twenty years that's that's a net tangible benefit beneen benefit bi aussi mooy da ngay gis koo xam ni danaan li nga war mooy ki ma wax sànq rek man maa ngi woon ci islam maa ngi woon ci regular bank mais léegi daal wax dëgg yàlla sama xel dalul ci ci dalul ci euh, euh, ci wàllu euh, interest bi léegi dama bëgg a ci islam dama bëgg a jógee ci regular bank dugg ci dugg ci islamic bank kooku tam mën na refinance so those are three major things yoo xam ni reason yoo xam ni nga mun nga def refinance so to answer your question you don't want to be refinancing finance situation here because take any ni yow yaa ngi islamic finance bi I'm donc amatoo raison pour dëggaat islamic finance kon boobu dem na bu fekkee ni yow da nga thirty years nga indi ko ci fifteen years then boo di finance pour lan la woon amatul sens bu fekkee nag léegi yow amoon da nga woon five percent nga refinance maybe nekk ci three percent rate bi mu three percent léegi you know to refinance fay beneen five thousand dollars to stay at three percent one last thing I forgot cash out refinance Right? That's a very important. I am doing a lot of that cash out refinance. Mooy lan you have equity on your house tubaab what they do and do mu in general Don't care what I know. mais américain American. what they do in general more you do a cash out refinance mooy can yow mi yaa ngi jëndewoon kër gi two hundred thousand dollars back in two thousand okay Maybe, Maybe two thousand twenty the house is worth two hundred and ninety thousand yow fay def na sa mortgage payment yaa ngi fay di fay di fay di fay di fay léegi you only you only owe one hundred and fifty thousand so it means that you have what you have hundred and forty thousand dollars on equity in your house xaalis la boo xam ni li ñu tuddee financial leverage la fi mu ne maa ngi wax loo xam moom I'm very passionate about it parce que ñi raw ci États-Unis yëpp ba ñëpp ci ëpp ci real estate lañu lañu invest te li ñu koy usé mooy financial leverage mooy exemple bi ma jox léegi nii two thousand nga jëloon kër gi yaa ngi ko yaa ngi jëndee woon two hundred thousand yaa ngi fay yaa ngi fay yaa ngi fay yaa ngi fay ba tey ni two thousand twenty yow fu mu nekk nii yow hundred hundred sixty thousand rek nga amee ci kër nga nga def appraisal kër gi kër gi ne ah kër gi ne it's worth two hundred ninety thousand mooy diggante yow li nga amee ak li li kër gi value am nga fa hundred forty thousand dollars mu ngi mu ngi tëdd thousand dollars tey sa doom day jàngi collège tubaab bi noonu la ñuy def seen doom day day jàngi collège léegi ñu koy jëlal si loolu dañuy jël dañuy def ni finance génne eighty percent muy hundred thousand dollars cash ñu fey seen xale seen doom mu dem jàng xale bi jàng four years génn nekk docteur wala nekk ingénieur amul amul amul si loolu right yow mi bëgg a jënd kër Sénégal ñu lay jaayee terrain foofu vingt millions wala trente millions nga war a tabax mu war a nekk mu war a nekk cinquante millions banque Sénégal bi boo boo demee di jënd kër BHS ñu lay ñu lay fay eleven percent why don't you tap in your equity get that money out take your hundred thousand dollars and then jënd sa kër out cash Sénégal so in day mel ni yow la xaalis boobu noonu da nga da da nga leb ci banque ci jënd kër Sénégal at three percent versus paying eleven percent wala xam naa fa ab bu mu déggee dina ma mere parce que BHS yow loolu la ay ay ten percent eight percent def naa ne rate bi gën a bi gën a eight percent pour kër Sénégal it doesn't make no sense wala Gambie parce que boo demee tamit euh, euh, Citizen Bank bu Gambie tamit même chose la def naa am na waaj boo xam ñu woon ci 12 bu fekkee yow am nga kër leverage that equity that you have lu génne xaalis boo bu fekkee te am nga bor man I just did am na benn américain boo xam ne man maa ko refinance am te dama gis ne balaa may sori ma jox suñu Omar wala fàtte de ma jox la exemple rek to see how how how much sense it makes moom këram këram instant yi mu ngi mu ngi wax mu ngi mu ngi mu ngi amee ci kër gi two hundred and thirty thousand la amee ci kër gi ba ñu defee appraisal bi kër gi mu ngi mu ngi wax two hundred four hundred and ten thousand moom mu ngi doon fay on a thirty year mu ngi doon fay eighteen hundred dollars a month mais comme que trois dañoo bëri bor am na boot am na oto am na nangam ak crédit card yëpp mu ngi doon fay three thousand dollars every month la doon fay am crédit card so kooku ba ma xoolee mu ngi doon fay à peu près five thousand dollars la doon fay every month la doon la fay ci ak ak boor yi xam mooy kër ma defal ko ma defal ko refinance right cash out léegi borom yëpp mu ngi woon fifty ma jël fifty yokk ci two hundred xam moom moom la ameloon muy two hundred eighty thousand dollars ma refinance ko two hundred eighty thousand mu jël fifty thousand dollars fay yëpp fay otoom fay fay bi fay crédit fay lépp léegi every month moom mu ngi def mu ngi def uh, fifteen years période la nekkoon léegi mu ngi def fifteen years every month his monthly payment is twenty one thousand twenty one hundred deux mille cent dollars lay fay every month for fifteen years ci mortgage am right ko léegi kon kii mu ngi xool mu ngi save two thousand nine hundred dollars every month just by restructuring the finance mooy dara changé li mu def dara changé Maybe he's paying $2,100. He gets $2,300, $2,900 more every month in his pocket. But, but he went from a 30 year mortgage to a 15 year mortgage. But what we the saving over 15 years is over $400,000. Lack of education, lack of information. As the senior community, communauté, we don't have that information. So they need them, they them, them, them, them, them, They spend more money than we don't need to. Don't. xaw naa xaw naa guddal tuuti sa question bi sama jeew but effectivement booy refinance na make sense and based on your financial situation mun nañu xool nan la ñuy def ba nga xam ne refinance nañu nekkul sa ñu continuer ñu seen woon jégalu ci guddal bi. Ah, sëñ Omar. leer na naañ jërëjëf Pape jërëjëf. Oh, salaamaaleykum wa rahmatulah Haji Pape seen Cheikh ñu ngi leen di salaam. waaye li may jëkk wax rek moo di eh, sëñ Pape. on behalf of uh, every Hadarat. I'm going to be introducing a lawsuit against you. Alexa, be quiet. que technocrate la non suba na within a week or two dama ne dina dina la suyo particulièrement xaj Pam on behalf of Taliban Kiev, if Taif, parce que just like you said da nga wax sànq lu am solo ni naar yi ak pakistanais yi ak ak ñooñu ñooñu c'est pas parce que dañuy gëm yàlla mais it's a lack of information. gis nga bi nga fi indi léegi léegi nii nii nii tey am baaxul. non mais mais kii pourtant ñu doon suñu biir boobu léegi lu tax waxuñu ko xakam donc. loo suddi laa ci loolu la. ci ci ci jëkkee ci li nga jëkkoon wax sànq am na loo sànni sànq en en passant loo xam ne te mbokk yi dama bëgg ñu bàyyi ci xel moo ne suspicious activity pour pour que bëgg jënd kër. Hmm. xaw xaw nañu dund lu mel noonu te pourtant yàlla xam na ni euh, xaalis ba ñu doon déplacé dañu ko déplacé ci 401k rek dugal ko ci ci ci down payment and it was it was a huge deal with the underwriter. lu mm-hmm. nekk ñu laaj la ko. Mm-hmm. mais mais sama question mooy. modèle waati li nga expliqué sànq mo chara bi euh, euh, profit interest we know is is a revolving interest mm-hmm. profit is that is that a net interest net profit pardon boo xam ne du changer over the over the life of the loan wala waaw bu dee murabaha bi ah jërëjëf jërëjëf d' abord euh, xam naa suul moom loo suul moom nañ nañ nañ nañ ay déggal rek oui oui oui oui pas mais des fois aussi suñu suñu biir da ngay da ngay du complex ba da ngay toll foo xam ni euh, it's very unfortunate mooy nul ne nul ne prophète chez soi des nit nit da ngay da ngay wax dara ñu yaakaar ni interest surtout boo nekkee position yi ma nekkee euh, doo bëgg nit yaakaar ni da ngay utiliser yi pour pour advance pour advance your own euh, te loolu tamit foog ñu bàyyi foog ñu ci bàyyi xel des mais xam naa li nga wax uh, we still won't use it as an excuse. inshallah Facebook bi di nga gis nag danay def ay publicité yu bare ak ay yu quoi ah ci dugg wax ko woon mooy ma wax mais loo subi yow déjà indi nga leen xam dañ ko ci dinañ dinañ ko sama yàlla interest right so yeah you right interest is revolving so what on on a murabaha li uh, def the bank is going to look at what is their intended profit for 30 years like if they're investing $100,000 how much money they want to make for 30 years you calculate it and then we add it right straight back on top of the, the, the price you buy in a house for $100,000 you do a 30 year contract, the bank is going to sell it to you for one night. And you make, uh, you make uh, uh, equal installment. But then the problem in, in, in America, why the federal government is requiring us to give it you what the equivalent in interest is. I'm going to choice. Comme mooy file and sa tax return you have to use the form 1040 amoo ci choice the the government du not du not have any choice so ñun tamit we have to, that, that with 100, that $90,000 in profit, il faut que ñu il local in terms of interest Well, la équivalent lan mooy équivalent bi des fois foofu ñu ñu fa follow fa follow ñu guy. la ah benn rek because bank banque bi nee 3 percent, cent yow nee 3 percent. cent mais comme tax ma tax ma accentué loolu ci début moo tax ma la le 3 percent right doesn't mean interest it's a percentage it's a mathematical formula right 3 percent is 3 percent. 3 percent cent profit uh, 3 percent interest it doesn't matter it's just a percentage so what we do we put our profit and we sell it to you back exemple bu la joxee sànq tey sëñ Cheikh mi bëgg a def opération tabaski dem dem for jënd fa ay hundred thousand dollars ñu jaay for hundred fifty cent cent mille euh, cent mille francs CFA jaay ko cent am the fifty percent profit right They will la mën na la léegi cent They may man dama lay dama lay dama dama la koy lebal parce que xam naa ne fi mu nii yow euh, borom ñaari soxla nga fi mu nii affaire yi métti na ci yow léegi dama la koy lebal ci dama la koy lebal ci ci three years bu nekk nga fay ma cinquante mille you see that's the same exact process moom la ñuy utiliser ci ci financing dañu jëmee nañ ko cent mille jaay la ko cent cinquante mille lebal la ko pour three years nga fay cinquante mille nga fay cinquante mille par boo ko boo ko break down into the monthly basis then mën nga li ngay fay cinquante fay I don't know par exemple fay mille something par month wala deux mille something par month donc noonu noonu noonu lañ koy noonu lañ koy break pour euh, pour que mu nekk euh, mu yow muy comparé bëgg ma comparé man ak banque bi you can compare apple to apple what's the percentage how much profit interest you gonna pay jërëjëf xaaj Pape waaye nga nga may ma rek ma ma wax euh, desutu mbooloo mi ni ñun lii mooy benn barrière barrière boo xam ne we need to beat it down bring it uh, bring it down parce que as a community comme ni nga wax rek dañu am benn feebar boo xam ni euh, fokk mu wér pour ñu ëpp ci pour ñu jariñu ci parce que doo am asset sa biir ba pare di jéggaane feneen tout le temps loolu jaaduwul donc pour mbokk ni di ko wax ñep ni may wax ni Pape Ndiaye gi yónni ma ci déedéet dama xam ni rek wax deug yalla même position ya tollu it par rapport talib yëpp xadaraat yep ni rek ni amna lo xamni mi ngi suñu biir les take advantage of it bàyyi te baye jigaale bi alaykum wa rahmatullah wa alaykum salaam wa rahmatullah barakatuh alaykum wa rahmatullah waaleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp ba di nuyu ah, di jëral nuyu suñu sëriñ Sidi Ahmed di si teeg gi yëpp ma la Pape Niang bu Cincinnati ah ziar ñu ngi daal ziar dama expose bi nice na lol ane ka li Omar don wax c'est vrai comprendre nañu ba fi ngay waxee mais ñu mel na ñun des fois dan nañ la si Facebook bi mais dafa mel na xaw nga ko gëj def nag de wala xëy na ñoo ko je top rek loolu. waaye tay tay tay tay dinañ ci delluwaat incha allah incha allah yàlla baax na yàlla baax na non non c'est c'est très bien parce que amin c'est-à-dire man dama naan commune communauté yi fi développé yëpp mooy euh, comment dirais-je euh, li ñu jàppante ñoom seen biir quoi boo xoolee mm-hmm. indien yi gis nga indien yi ni ñu amee power si dëkk bi euh, spanish yi sax même chose ak yeneen communauté yi donc loolu yëpp mooy jàppalante bi ñuy def seen biir rek donc loolu moo leen jox power parce que unity is power donc loolu mom képp ku si ku jàppante rek sa biir rek incha allah li nga bëgg yëpp eh, di nga ko mën a am quoi déglu naa exposé bi li ma doon laajte rek mooy parce que des fois xëy nga gis ni bëgg na am kër mais xëy na crédit am may mu bëgg mu mu mu mu mën a am kër bi mu bëgg mën na am sax xëy na mu mën a am you know benn loon mais xëy na loon bi mu am mën na ko bañ a may mu mu am kër bi mu bëgg am bi mu bëgg am alors que yenn banques yi xëy na des fois daañu accepter like cosigner nit ki am cosigner bu noonu mm-hmm. laaj est-ce que aussi finance islamic financing ñoom aussi daañu accepter like nit ki am cosigner quoi. waaw ah islam mënu ko bañ parce que euh, effectivement cosigner comme ni ko waxee sànq rek. mooy euh, crédit euh, usually sax euh, problème bi doon credit crédit ki nga xam ne mënul am kii bu xasee ba am ba mit crédit requirement bi donc dina mën a jënd donc kooku most like la mooy la mooy issue la mooy problème am moom mooy problème mu income donc ki soxla ko sign li si gën a bëri income bi moo dul mat donc mu wut keneen ko xam moo koy mottali pour income bi te boobaa li muy li muy min rek mooy que ni borom day xool ne ah suñ femme mi de mën na mën na jënd kër bi two hundred thousand waaye bu dee tuuti fii il faut que mu am kenn koo xam ne income moom moo koy moo koy jàppale te léegi loolu garanti lay nekk rek pour que ni moom banque bi parce que banque bi li mu bëgg a xam at the end the day mooy est-ce nañ ko fay banque bi moom loolu rek la loolu rek moo ko intéressé ndax kër gi nañ ko fay léegi yow mi am cosigné cosigné li muy wax mooy ne ah waaw pap pap ñaan bi bu fay ko jàppale fay donc euh, islamic financing bi tamit amuñu dañuy du cosigné we allow you to do cosigné bu fekkee ni euh, euh, income bi matul donc mais pas ci ci crédit bi usually daal cosigner boo koy soxla c'est hmm. parce que income bi moo moo moo xaw a manqué tuuti nga wut kenn koo xam ne moo lay mottali pour donc euh, pour answer your question effectivement euh, mën nañu accepter cosigner di la sant aussi di la gërëm ci parce que dañ lay gis chaque fois bu ñu def live di nga koy gis ñu lay yëgal ne incha allah euh, next week bu tabaski bi jaaree lañ lañ pour education purposes jërëjëf Pape merci beaucoup ah, merci jërëjëf jërëjëf sëñ Pape maa ko sëñ daf mel ne mi ngi ci line bi sëñ Pape Kebe. waaw xaj ah, Pape. ne dafa sànq sa wax dama dégg ngay wax ah, par exemple ak aussi côté down payment bi. ma doon wax par exemple bu fekkee ne nit ki mën na euh, bu fekk lu mu mën a dajale rek lu mu gën a takku rek moo gën maanaam ah, par exemple maa ngi dégg ngay wax vingt pour cent. Mhm. bon dem mais aussi damay dégg parfois ngay nit ki ji wax ne ah am na ñoo xamante ne ah fi nga liggéey mën nga fa dem sax ah bu fekkee am nga fa foowoon ki bo mën nga fa jël après yow nga fa nga fay sa foowoon ki hmm. mais bu fekkee ne nit ki amul bu fekkee ne tamit nit ki amul euh, option boobu par exemple comme dama joxe hmm. exemple kii nga xamante ne dafa yore salon di léet mais mu hmm. bëgg jënd kër ah, bu fekkee ne dafa bëgg jënd kër mu am par exemple mu bëgg bu fekkee ne dafa nar a teg loo xamante ne lu takku la yan lan nga ko mën a xelal ci loolu yan option la mën a am pour mën a euh, am lu lu takk parce que aussi damay dégg tamit beneen mooy damay dégg ñu ne aussi tamit am na ñoo xamante ne par exemple dañuy dem si seen euh, down payment dañ koy jël am na ñu koy dem sax di ko jëli loon ci ci beneen banque mm-hmm. maanaam euh, wala banque wala banque bi ci boppam xaw ma naka lañ koy tuddee am na man fàttalaa ko xëy na xam nga li ma bëgga wax ah, waaw léegi ku ñu mel noonu ñag lan nga leen mën a xelal daal foofu foofu laay mën a wax. dinaa jéem a gàttal answer comme ça ñu mën a dugg ci yeneen yeneen mën a joxe question soo léegi down payment loo ko mën moo gën li nga wax dëgg la ki nga xam ne mu ngi liggéey ci compagnie am 401k it's one of the rare occasion yoo xam ne dinañ la allow nga borrow some for some 401k pour down payment for a house donc ki nga xam ne am na 401k mun na borrow against the on 401k beneen bi aussi mooy ki nga xam ne tey dafa nekk self employed te incha ci temps yi nañ ko nañ mooy Make self-employed doesn't mean that war a am 401k we all should get a 401k have IRA account you mun nga ko You mun nga dem sa banque seref ko foofu di fa dugal xaalis wala ba jënd kër you go, you go borrow against that loolu tamit mun na nekk ki nga xam ni aussi euh, dafa bëgg a down payment te amul xaalis bank is not going to allow you nga leb beneen bank pour down payment aussi déjà bu ko bank gisee rek the mortgage the deal is done am na ñu bëri ñu def erreur boobu noonu mooy di jënd kër dem ci banque A mais dama bëgg a jënd kër ñu laaj down payment ten thousand nga dem ci banque bi lef fa ten thousand ñu rënd sa crédit gis ñu lebal nga fa ten thousand automatiquement the deal is the deal parce que down payment you cannot be you cannot be broke lu dul mu jógee ci sa 401k wala mu nekk sa investment bu fekkee ni yow da am salon wala ngay liggéey self employed I stress that enough does not mean that you're not gonna have a retirement does not mean that you don't have savings parce que yow mi sëñ sëñ wax na ko léegi bëgg a jënd kër nga dem taxaar sa stock est-ce que c'est euh, boo xam ni nga koy si down payment daal képp ku nekk dëkk bi saving war nga fexe ba na nga na am na nga am saving te boo jënd daam boo jënd kër mën nga utiliser saving boobu noonu pour continuer ba ko jënd li muy bañ daal mooy xaas bu ñu lekk. jërëjëf jërëjëf sëñ Pape. am naa si Mouhamed. jërëjëf line bi. ak Mohamedou euh, waaw asalaamaaleykum ñu ngi delloo ziar sëñ Pape sëñ Cheikh naka njaboot gi alhamdulilah waaw ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp euh, di euh, nuyu sëriñ bi di nuyu soxna ma jigéen njaboot gi yëpp ñu ñaanal ñëpp jàmm di rafetlu exposé bi rek Pape vraiment waxtaan bi leer na comme sëñ Umar waxee rek vraiment yi baax na ñu koy share comme ça ñu ñu ñu mën a xam euh, bu ñu soxlaa ci koy dem ak koy laajte man sama ñaari question la amoon ñu gaaw euh, xaw ma dama ko mis ou am naa som som som ineen ar wala parfois dafa doon drague to dégg ma bu baax li nga doon wax mais est ce que dugg nga ci closing costs yi est ce que yéen am ngeen ay est ce que islamic financing overall dina am ay closing costs bu amee closing costs environ ay ñaata lay doon quoi xam naa ni mosfla ak li ça dépend du montant bi ngay borow mais give us just an idea bu fekkee ne am na sama deuxième question moo doon boo bu may bu may refinance go coming from an from an conventional bank to an Islamic financial bank euh, est-ce que yéen ngeen allow pour ñu remove euh, PMA bi euh, private mortgage insurance bi parce que je crois que am na loi bi allow even though boo deful sa 20 percent down up front Borjele regular mortgage pay up to 20%, well the house value increase, you should be able to go back You change some mortgage payment dindi euh, dindi PMA boobu quoi est-ce que yéen est-ce que loolu c'est toujours valable parce que bi ma ko liggéey xaw na yàgg tuuti est-ce que loolu c'est toujours valable te bu fekkee c'est valable est-ce que yéen da ngeen ko mën def jërëjëf ñu ngi rafetlu waxtaan bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf ci question bi donc first question bi mooy closing cost bi so we gotta understand what closing cost is so closing cost in general anytime you buying a house whether you're doing refinance we have closing costs. so closing costs ñetti portion moo ci nekk bi ci bi ci njëkk moom mooy euh, euh, euh, lenders the lenders fee right My bank didn't xam moom moom moo lay ban ban ban cost lay inclure defal loan right parce que dina ma fay man nii nekk loon officer bi fay ñeneen generally is between from three hundred dollars to two thousand dollars mooy banque bi nga xam moom lay charge pour my money mu ngi origination fee The second part bi moom mooy title insurance title fees mooy attorneys yi nga xam ne ñooñu ñooy préparé diir bi euh, title beeg yooyu ñoom tamit dañuy fayal te loolu euh, li may wax ni regardless wala nga def salary finance wala nga def conventional so origination fee moom mooy li nga xam ne moom la bank di charge parce que moom la moom la bank di fayeku title fees moom li nga xam ne moom la title company di fayeku euh, beneen bi stop moom mooy escrow yi mooy li li li suñu ci laajte woon sànq taxes and insurance so léegi yooyu moom mooy component to closing cost yi ak foo mënti dem tamit euh, gën a pay the same thing et des fois aussi gars yi duñ dañuy yaakaar ni peut-être euh, bi moo gën a yomb closing cost it doesn't necessarily work work parce que part bi nga xam ne moom mooy closing cost banque bi is very minimal comme ni ko waxee between three hundred and uh, fifteen hundred dollars moom lay nekk donc leneen li mooy euh, comme ni ko waxee tax insurance you gonna pay the same any bank you go title fee you can shop neexee nga ne bi ma bi catégorie bi laay yóbbu nga dem lu nga shop ba gis catégorie complet nga xam moo gën a yomb nga use nga use the, nga use leen donc loolu moo jëm ci wàllu closing cost and it's gonna be universal universal across the board li nga wax si bu fekkee da ngay def da ngay def refinance est ce que mën nga remove the PMI very much so parce que PMI is only up to 20 percent equity donc bu fekkee yow ba ngay ba ngay jënd sa kër joxe woon 10 percent toog nga yaa ngi doon fay ba léegi fii tool nii tey léegi yow two ways benn sa natural um, a natural appreciation of house bi dem ba ba dépassé un pour cent mooy jëmee jëmee woon nga two hundred thousand ten percent cent nga joxe woon donc yaa ngi woon ci uh, one hundred eighty thousand léegi nga to two years nga ñëw ma bëgg la di finance ma def sa appraisal appraisal bi nekk uh, two hundred and ten thousand automatiquement am nga un pour cent uh, equity PMI yi gis koo woon donc bu mu lay refinance sa PMI yi dañ koy dañ koy remove automatiquement the only time PMI bi toogee when bu ñu defee appraisal malheureusement sa sa house value wàcc te léegi yow amatoo amatoo 20 pour cent equity donc boobaa you still gonna do the PMI te uh, there are ways yoo xam ne sax in the PMI au lieu nga koy fay on a monthly basis mën nga ko fay one time fee nga ne ok léegi am dina fay two thousand dollars pour renew the PMI you get the best rate te doo fa nekk di ci delluwaat waaye daal to answer your question either through natural uh, natural uh, appreciation mooy value kër gi yéeg ba nga xam ne yow léegi am nga 20 pour cent wala nga ñëw ci refinance am na ko doon refinance temps yi euh, six hundred dollars moo ko manqué woon pour mu am euh, pour mu am eight twenty percent da ko indi ci closing cost you just bring it lower the uh, the contract amount then léegi am na am na twenty percent equity PMI goes away donc yooyu yëpp ay possibilité la mais bu ñu demee ba nga xam ne tey nga bëgg da nga bëgg euh, da bëgg kii ku ku bëgg refinance boo ma jotee wala boo jotee foo mën ci jot rek Eh, ci bank bi li la wax est-ce que di nga am PMI wala am PMI. jërëjëf sëñ ni su fekkee ni Mamadou eh, tontu bi leer na xam naa si soxna Madeleine moom te mi ngi am question xam naa bu muy laaj wala contribution. Adja Madeleine. salaamaaleykum tonton Cheikh jërëjëf. Haj Pape ñu ngi ziar bu baax a baax macha allah. wax dëgg yàlla matale na tabaar fakàlla comme d'habitude yàlla na yàlla barkeel c'est bon dafa mel ni li ma la doon bëgg laaj ci PMI bi sëñ Mamadou broche na ko off parce que da ngay gis ñu bari ñoo xamante ne que xamuñu ne PMI bi l'Inde bi lay gën a bénéfice que ñoom boroowo bi donc da ngay gis ne que duñu ci duñ ci position tuuti loolu laa bëggoon nga broche tuuti fàcc tabaar ak laaxu sëñ Mamadou daal di koy këf mais macha allah Euh, ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax émission bi jàngat bi bari na ci lool lool lool lool lool vraiment jërëjëf waa kii ziar bango merci. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf effectivement comme ni ko soxna man la waxee rek PMI bi moom il faut que l'un de lay donc yow noo mën a def ba ba ba rimu sa rek daf lay daf lay daf lay gën a daf lay gën a arrangé. balaa ñuy dem ci soxna Khady euh, ma tontu tuuti rek def euh, naa soxna Aïcha mi ngi dugal benn laajte ci ci bi. and other banks still doing cash out refinance with the pandemic, very much so. So the bank is, uh, they are still doing cash out refinance. In most banks, uh, the particularly maximum bank, I do. The only, the only caveat, my SIE needs banking, uh, am na ñoo then when you do unemployment then unemployment is not income donc you have to be back at work But la fekkee ngay back at least six months then you can do cash out refinance regardless of the pandemic uh, or not mun daal na la fekk ngay liggéey na fekk nga am credit score bu baax then we can do a cash out refinance aussi day fekk aussi parce que cash out refinance is only aussi moom 20 percent up to 20 percent equity so bu fekkee ni two hundred kër gi two hundred thousand dollars nga ci amee booy def booy def cash out te value bi nekk value bi nekk 300,000, then you can only get uh, 328%, two hundred ten thousand ten thousand 210,000, so 10,000 cash out donc euh, loolu tamit mën nañ ci mën nañ ci gën a to answer your question soxna Aïcha yes we are still doing uh, cash out refining and I need ci soxna Xadi incha allah waaw salaamaaleykum sëñ Pape maa ngi leen di di leen ziar émission bi am na torop man dama am question um, par exemple bu fekkee ni you are um, uh, is your first time home buyer xam naa ni am na ay government programme that can uh, give you down payment Mm-hmm. Uh, but if you are able to withdraw from your 401k mm-hmm. nga jël uh, government uh, uh, down payment wala nga jël sa nga borrow from your 401k ban moo gën boobu mooy sama première question mm-hmm. sama deuxième question bi mooy bu fekkee ni qualify nañ la to buy a home what is the most important thing to know mm-hmm. bu fekkee ni musoo jënd waaw waaw lan nga si war a xam loo xam ni vraiment dina la mën a guide parce que affaire boo ci niwee rek dafay xaw a doo xam lépp daal mais yow what is the most important thing to know mm-hmm. merci jërëjëf jërëjëf sama xarit euh, xanaa euh, grant versus oh one k so les grant yi first time home buy grant yi foog ñu indi seen catégorie yi ñu amee am na ay sites yoo xam ne dañ la koy may but euh, there is no free lunch in America la ñuy wax ni generally so if I'm gonna comprehend, uh, if I'm gonna understand this app, oh, yeah. Uh, yeah. then, then tap would how it's working. So most city, uh, municipality, ñoom ñooy joxe grant yi. So but guarantee condition me am They they dañuy dañuy um, put a lien on your property for the first five years or the first ten years or the mun a jaay for ten years. So you gotta understand what are the what are the the restrictions you nga xam moo am ci grant yi. you fekkee restriction You are yow arrangé wu then don't, don't, don't, don't take it. par exemple fekkee ni yow da nga bëgg a jënd kër te léegi ba nga ya nga xalaat ne peut-être mën naa am nga dem Sénégal five years wala dara wala da nga ñibbi Gambie in ten years léegi yow ñu ne restriction bi kër gi mënoo ko jaay for ten years then don't take it because da koy leb léegi ma ne mais dañ la koy fayal so you gotta li nga li ngeen the first thing you daal mooy understand yow grant boobu lan la bu fekkee ne grant bi nag moom uh, restriction yi is not a big deal to parce que aussi euh, bu ñu la joxee twenty thousand dollars wala ten thousand dollars yoo xam to towards use towards the closing cost wala to use on the other down payment then you can take it te bu dee bu dee you take it from your 401k it's not free money you take it from your own money but you pay it back but amul benn restriction right bu la neexee nga jaay sa kër suba bu la neexee nga delluwaat Gambie bu la neexee nga delluwaat Sénégal lu neexee def amul restriction so question B, it really depends uh, it's not a yes or no it's not a straight answer it depends on uh, what are the restrictions so booy jël grant well, first time home buyer grant understand what are the restrictions and how as those restrictions works for you bu a restriction yooyu noonu they are too big for you it's not the independence then don't take it bu a restriction in that moment, it's not a big deal first let me ñu koy for for one year or two years Well, you know that you know you know going anywhere for the next five years then then take the grant 401k bi you you you borrowing against your 401k and you have to pay back then think about it the same question with once you are qualified, what's the most important thing that you need to do? Being qualified is one, is one thing, but li bon koy mooy qualify fa dem ba ci biir euh, jël jël am contract dem ba ci fin bi ñu ñu ñu ñu euh, drop la wala ñu dinaa because you did a big mistake dugal naa sama facebook tey right the first the, the most important that when you qualify mooy na nga fexe ba credit score bi nga xam ne moom nga amoon ba qualified qualify bu ko yàq ci diggante bi from the time the time you have the qualification, the time you close on the house, the income contract, it's usually 30 to 45 days. Credit score is maintained. It's important. Number two, no big purchase. maa ngi jënd kër gis na dama koy am naa am naa am naa time boo xam the week before closing we have to drop Because que simple, simplement he went and bought a new car the week before closing you call the ñu wax fan debt income ratio You ñu gis ko make it. mu he can no longer afford parce que boo boolee house payment bi ak car payment bi ak yeneen defam yeneen bi léegi gis ak sixty three percent the deal is done so no big purchase erreur bi ñu ñu def tamit euh, du du oto mooy ah man de jën naa kër am naa contrat bi dem naa bay waaje dem naa bay waaje close soxna si nañ nañ nañ jaar achi ñu jën ay fenêtre yu bees waaw dañu leen jënd photo yu bees jënd teel la jënd nangam dem indi rakab loon ba mu tolloo beneen three wala four thousand dollars Now, léegi you can no longer afford parce que affordability yëpp it's on paper it's not ak li nga support. it's on paper The income limit is utilisé woon pour if you afford can afford the house the debt to income ratio minimum ngi nekkoon ci forty forty two percent nga dem jënd nga dem jënd big purchase léegi léegi loolu buñ ko calculer da nga ko war a fay wala house fay leneen fay leneen This ni léegi yow léegi on paper you can no longer afford it. the deal is dead beneen uh, it's very important no cash deposit American moom suuf société cash cash cash is king cash is not king in finance cash is bad cash is bad Yo yo yo yo. joxe nga bank statement yaa ngi waroon down payment ten thousand nga nit ñu amoo ko uh, seven in deposit. the bank is not going to be able to use it algorithm, some, some, some screen you, We can use it. So no large uh, purchase. It's very important. Maintain your credit. Use that credit bi ñu ko duñ ko but generally you never know last mun nañu def li ñu credit supplement right and then no cash deposit cash deposit bi nag moom naa ci joxe benn truc léegi tuuti bu xaw a jàdd gauche tuuti rek olof lay laaj mun na am gars yi bu ma déggee du ma jàpp mooy bu fekkee da nga dem pour jënd kër nga nga war a def down payment am cash war ko utiliser te mënoo ko mënoo ko dugal sa kon li ngay def mooy jox ko sa mag wala sa rak wala fekkee ni bokkul ci contrat bi moom mu dugal ko ci compte am la chèque li ñu tuddee gif gif chèque moom mu bindal la chèque ne ah damay may suñu seex bi wala sama xarit yi dama koy may ten thousand yi pour moom chèque na ko jox chèque bu nekk cash na la ko jox chèque bind ci bind ci ci mémo bi gif nga jël chèque bi déposé ko sa compte bu clearé bank yëpp aw say ninety percent de bank am na ñu tuddee déclaré mu remplir man suñu Cheikh Seck nii may may sama sœur xadi xadi ñi ten thousand dollars pour mu jënd kër uh, I'm not she uh, yaa xam noo leen ko arrangé moom daal na bind signé ñu yore ko nga yore chèque bi nga jël déposé ko jàmm na ñoom boo bëggee jënd kër loolu laa nga war a jërëjëf sëñ Pape sëñ ah, ma bëgg yokk rek maa ngi dugal euh, ci chat room bi am na benn link bu fa benn lien bu fa nekk that's my personal euh, euh, link koo xam ne dafa bëgg a def finance wala dafa bëgg a jënd kër mun na cliquer ci lien boobu it's gonna take him directly on my suñu website Devon Bank link bi mun na file application bi foofu and it's gonna come to me and then it doesn't mean that you necessarily gonna take it man naa ko gars no problem if you just want to get the information. You just pull your credit. I'll look at it, I'll tell you, advise you. If you don't feel like you, you have, you want to do the Islamic financing, Well, if you don't feel like a bank or the bank is giving you a better deal, I don't take it personal. Do much math, do much daftar. I will look at for you, I'll advise you, and you can go with another bank. Marshall I got enough business with, uh, with other things. So for my community, I will do it anytime. koo xam ne bëgg nga bëgg nga bëgg nga xool crédit wala bëgg nga bëgg nga am pre-qualification I can do it doesn't mean that when you have the pre-qualification don't feel bad if you decide that oh, you know what I, I decide to go with another bank because I, I work for a bank so competition hey, I don't mind it you can go somewhere else you can do it it's no big deal at least my li interest intéressé rek mooy na ñëpp am because I know the value of uh, of us uh, having our own ownership xanaa li ma ci bëggoon dolli rek sëñ Pape foofu ci li nga euh, terminé foofu rek li ñuy bëgg war a bàyyee xel rek mooy euh, euh, ki nga xam ne mi ngi ci institution di ci liggéey wala nekk ci yenn béréb yi di ci liggéey dafay am li ñuy wax confidentialité quoi. Mmh. li nga mmh. xam ni moom àla kulliyaalin même bu jógee si institution boobu sax li mu xam ci Cheikh sek ci ay information du ko wax feneen quoi même bu jógee. banque boobu mu nekkoon donc euh, loolu moo am ci yeneen ñi nga xam ni da ngay dem si ñoom doo leen xam. ñu nekk di mm. liggéey fenn relation yooyu ngeen di am ci liggéey bi ak yooyu euh, moom la ñuy am ak mbokk sénégalais yi wala gambien si wala ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi bokk communauté di liggéey daal pour nit ñi daal seen xel dal ci loolu te xam ni aussi donc euh, liggéey la rek yëpp ci biir la nekk daal macha allah. non sëñ loolu loolu am solo am solo xam mm. parce que as a as officer. I have into the NMLS, National Mortgage Registry Number, um, Miss boo no, some are seulement dañuy background check I have FBI background check boo xam ni moom not def nga am NMLS. sama numéro MLS one five seven one five six six you can go online and find it. Uh, man loan loolu officer bi Chase or bi nekk uh, American uh, bank bi mu we go to the same training we go to the same rigorous background check te loolu li ko waral mooy we have we are privy to personal information Like, ki nga xam ne dafay dafay dafay ñëw ci man fu ma defal ko mortgage ba ma defal ko finance basically sa laaj yëpp ma exposé di ma jox sa tur di ma jox sa euh, social security di ma jox sa income I get all of your information so it is so crucial that as part of our job we keep keep those information aw ma droit sax yi nga laptop bi may liggéeyee nii aw ma droit aw ma droit save your personal information sama personal laptop personal device ak na bi ma la yónnee nii a secure website boo xam ni all the information is safe over there te it euh, comme ni ko waxee confidentialité boobu noonu dafa important ba nga xam ne in our job nit ki bu ñëwee wax la léppam wóolu la léppam doo bëgg xëy suba ma ne ma ma ma woo soxna xale ma ne ah waaw moom dafay am na 300 000 loolu lay loolu ah oh, di divulguer sa information ba nga xam ni wax dëgg yàlla du loolu taxu woon nga nga jokkoog man wala man a ah, suñu dafa sàggan moom de crédit score bi moom five hundred rek la moom moom kilifa mu toll noonu mu fexe ba am crédit score bu baax whatever you send me whatever you give me as information rest assured that that information is private te bu may dee dama ko yóbbaale boo gisee damay dem damay dem chaque fois ci clause yi am na benn document boo xam ne ku ku jënd kër sign nga ko wax ni de loan has gotten private information from you and is not entitled to share that information with anyone. And if he does that, then dina la jox numéro téléphone boo xam ne mën nga fa actually FBI la sax ñoo koy ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo xool loolu because ni nga we we get the personal information of the people and the worst thing you could do mooy toog toog toogaa leen toog ah aj maamu yooyu man nekk si taal moom ni ñu koy gis ñu koy ñu faaxal taal naa lay nekk every year tasaare ko ci mbedd yëpp donc yooyu duñ ko def incha allah donc euh, jërëjëf ci ci éclaircissement boobu jërë wax ne information I get euh, stays between us bu ma sa jabar sax wala bu ma woon ne ma ah, ah Sadio Mamadou de woo na la na la woo nga wax moom euh, it's the job that's what we do the same way when I do information yoo xam ne is very personal and I don't I don't divulge uh, Alaaji Mamour waaw a ah, jërëgeen jëf vraiment waxtaan wi moom dafa mel ni gars yi doyaluñ ba léegi ñu ngi gis information yaa ngi ñëw si caar room bi waaye dafa mel ni waxtu wi daf ñu xaw a tànci xam naa sëñ Cheikh du ñu def lu dul nga jox sa gan gi suñu gan gi El Hadj Pam gi mu jox ñu last word euh, because euh, time bi jot na te xam naa ne daal vraiment moom il faut mu ñëwaat fi daal parce que tey moom li fi wàcc si xam-xam bëri na lool xam ne tey Euh, comme ni ko sëñ Omar Diop waxee rek euh, lii moom euh, information la ba nga xamante very vital te xam naa ne benn cours bi am na si ñoo xam ne ay étudiants li comme man tey jii vraiment dama fi dégg yee maa ngi jël ay notes defe naa il faut sa waay ñëwaat fi pour ñu mën ci gën a gën a lu bu baax quoi. incha xam nga nag moom il faut que muy jaar si man pour ma mën ko feeñal xam nga moom moom ngay la sant. a te waaye bu gën a dana gën a feeñ en tout cas ci it fa alors euh, kon suñ communauté bi yaatu na donc euh, ñun ñëpp bi ñuy jàppalante rek ku si nekk rek ci côté bi mu féete rek mu jàppale ci morom bi euh, ci li dul yëg ak ci li dul yëgul bu ko defee rek loolu rek moo ñu mooy benn plus bi nga xam ni moo ñu bokk boole ñun ñëpp daal fii ci ITFA xam naa sëñ Mamour xam naa comme ni nga waxee rek ki bi dafa ñu tànc mais ñu bëggoon rek rappeler Saturday sëñ Pape Kébé waxoon naka sànq si début bi xam naa ni euh, Saturday incha allah 6 pm euh, New York Times soob yàlla bëgg nañu euh, ñëpp ñëw ci meeting bi nga xam ni moom la ñuy wax kick-off meeting pour daal jéem a xool nu ñuy def ba nga xam ni soob yàlla convention bi nga xam ne mooy 2021 bi daañ ko jéem a amal xool ba nga xam daal ñi ñëpp daañ ci mën dugg def si seen loxo indi seen xalaat. bu ko defee yëpp mën a euh, jaar yoon gën a baax gën a rafet comme nu mu ci année yi passé comme que daaw moom yàlla dogal na ni euh, amul woon ndax li nga xam ne moo fi moo fi wàccoon bu ko defee rek ren tamit ñu bëgg daal waxtaan si waxtaan bu yaatu bi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, nobody gën a left behind comme ni ko sëñ Mamou di waxee boobu ba léegi muy fexe pour ñu invité ñëpp ñëpp yëg ko moo tax ñuy rappeler loolu rek pour bu soobee yàlla bu saturday Euh, ñëpp ñëw ci ci meeting boobu ñu bokk ànd waxtaan si soppante si xalaat et puis daal di ci euh, get everybody involved euh, kon ci kaw loolu rek xam naa ñu delloo ah, sëñ Cheikh eh, bisimilah Cheikh waaw dama ci ci bëggoon yokku tamit ñi nga xamante ne eh, teewuñu tey te ñi ñëpp ñi nga xamante ne xam nañ ko xam nañ leen te ñu bokk ci ITFA te teewuñu tey ñu mën a aussi jàllale message boobu pour Saturday kick-off meeting bi fu waay mën a nekk rek ci bi fii ci États-Unis mu bokk it fa euh, ak tamit ñu nga xamante ne tamit bokkuñu ñoo xamante ne bëgg nañu joxe ndimbal wala ndimbal maanaam daa seen ñàkk maanaam dimbali ñu ci ci yenn yi ci liggéey bi ñi nga xamante ne bëgg nañ porté wu volontaire tamit ñu ci bokk ku ci waay mën a nekk rek mën na ko mën a jàllale message bi loolu rek laa amoon li nga xamante ne maa ngi ciy dolli incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam jërëjëf sëñ Pape li nga wax noonu la rek waa macha allah wax bi rafet euh, kon sëñ Pape euh, Gueye donc euh, comme sëñ Mamour waxee rek ñu delloo la kaddu gi bu ko defee nga indi sa sa dernier mot quoi incha allah jërëjëf. Ah, en tout cas jërëjëf tey moom nekk ci beneen nekk ci position

xam-xam bi nga amoon nan nga ko nan nga ko joxe donc euh, li jëm ci wàllu finance moo xam euh, islamic finance moo xam ci wàllu mortgage moo xam ci tax moo xam ci business structure euh, dafa nekk loo xam ni I'm very passionate about it I'm living it day in and day out te gëm naa ni am na am na plus boo xam ne mun naa ko contribuer donc tey bu ma amee opportunité dem nii dafay nekk plaisir pour man su ma ñëw ñu partager ko ak mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ak parce que am di I tell myself personally Buma ma fexee ba kenn ci ITFA jógatul ñu ñëpp ñu yëkkati le euh, rising euh, rising tide euh, lift all boats donc fexe ba ñun ñëpp bu ñu nekkee financially strong ITFA become financially strong donc suñu suñu suñu suñu goal la pour que ñun ñëpp macha allah am ay kër parce que I I know for a fact how much how much impact real estate ownership is in the US. There is no better way to build to build wealth than than real estate the the all of all of the the the ñi ngay dégg ñu ëpp xaalis si dëkk ci Amérique yi nii boo xoolee ay réussir moo gën leen leen wax à part ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo de tech giants te te tech giants sax bu ñu diversify li ñuy def mooy invest in real estate so understanding finance I think is crucial financial literacy moom mooy li nga xam ne moom mooy impede uh, the African American community parce que amuñu access to that information so alhamdulillah the information is here let's go and gravitate towards it ku am question feel free naqar naa jot léeg-léeg léeg waaye ku am question feel free to to reach out to me there are many people yoo have me for the last two weeks they reach out to me directly jëm ci wàllu euh, laaj ma ci wàllu real estate wala ma ci wàllu finance and it's always a pleasure for me to euh, to answer this question donc euh, di leen sant di leen gërëm chaque fois tamit ci ci opportunité bi di leen wax ni man sama bopp tamit I am open to to participate ci suñu comité yi saa suñu nekk tamit plaisir la doon pour ñun pour que ñu euh, ñu ñu share that knowledge yéen sant leen gërëm di yeesal suñu suñu suñu ziar ci suñu sëriñ ci suñu wasila di ziar waa ITFA yëpp di leen jox di daje aussi comme ni ñu ko waxee ci réunion bi nga xam ne mooy Saara day euh, ci nga xam ne mooy ci kaw meeting bi nga xam ne ñëpp lañ ci war ñëw ñu jàpp ci parce que lii yëpp euh, ci ci liggéey ITFA la bokk ak mm. réew ak suba bi nga xam ne tamit moom lañu ñu fas yéene amal suba ci ci zoom bi ci à la même heure di leen sant leen gërëm kon nag suñu Cheikh kàddu noonu salaamaaleykum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته merci beaucoup ku yàlla waxtaan tey ji jotaay bi am and uh, we really appreciate it comme ni nga rek knowledge is power te vraiment empower nga ñu to ni nga ko la empowering the community empowering ITFA empowering human being in general kon nag euh, comme niñ ko waxee rek euh, dama si dolli rek si ne le samedi meeting bi incha allah bu ngeen koy share bu leen fàtte inclure si zoom link bi euh, bu ngeen koy partagé te ngeen ko nit ñi parce que vraiment man suma feedback bi ma jot macha allah alhamdulilah vraiment nit ñi excite ne nit ñi pare ne ñu ko si woo dina la téye wax ak yow si problème loolu texte ak boobu ko nit ñi foofu nag laay tëjee maa ngi rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo ITFA yam ci dafay wéyal ak yéen ci ay émissions yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo fa mi ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko غادي تفادال غادي بو تعلى